en wolof bi itam naka noonu Bakaba dinañu fekk si ci kanam tuuti ci chronique bi waaye itam point corona daañu ci ànd ba tey ak rédaction beeg euh, Aminata euh, Mbaare Sow allo présidence itam euh, di ngeen ci ànd per bu xar ak équipe am ak itam Ndiaye ñoom ñëpp dinañu fi teew ci li nga xam ne moom mooy allo présidence naka noonu itam xam ngeen ne jamono ji ak actualité politique faw ñu àddu ci Chérif Dia dinañu dalal ci kanam tuuti Youssou Touré muy coordonnateur coordonnateur réseau enseignant yu tout de suite euh, c'est euh, la première tasse d'information présentée par Cheikh Tidiane Diaw. Voilà, avec euh, cette la presse sénégalaise en ce moment. et les derniers développements. Euh, c'est surtout cette commission de discipline, hein, Chervia, de l'APR qui va plancher sur le sort de Moustapha Cicello. Le secrétariat exécutif de l'Alliance euh, pour la République a sorti en communiqué pour s'offisquer avec indignation des propos injurieux du député de l'APR. Euh, l'élément de Mambiram Diouf n'est pas en place euh, certainement. Nous y reviendrons tout à l'heure avant la fin de ce bulletin d'information. Mais retenez que Moustapha Cicello a démissionné de son poste de vice-présidence de l'Assemblée nationale. Le député euh, qui démissionne également des instances de l'APR et cela fait suite aux propos injurieux qu'il a proférés à l'endroit de ses camarades de parti. une affaire judiciaire l'opposant également au président du groupe parlementaire de Benon, Bokuyakar Aibirouning, est venu s'ajouter à cette affaire. On voit cela avec Pape Farani. Après une salve d'injures proférées contre Farbangom et Yahambay, Moustapha Cissé Lo va démissionner de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Selon nos infos, El Pistolero a déjà écrit sa lettre de démission qu'il va adresser au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niass, ce lundi. Cissé Lo déclare aussi qu'il va quitter toutes les instances de décision de l'APR pour rester simple militant et membre fondateur de ce parti. Au-delà de ces injures, l'ancien président du Parlement de la CDAO a aussi fait des révélations sur l'octroi de semence à des personnalités du régime ou leurs proches. De ce fait, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, c'est-à-dire Aymérou Gningue, va décerner une sommation interpellative à Moustapha Cissé Cette énième affaire confirme le malaise au sein du parti au pouvoir. À chaque fois, ce sont les mêmes personnalités qui se donnent en spectacle. Mais Moustapha Cissé Lo est coutumier des faits après Abdoulaye Diouf Sarr, c'est au tour des autres membres de l'APR avec la virulence des injures montre le degré de haine entre ses protagonistes. Farba Ngom et Yakham Mbaye auraient accusé Moustapha Cissé Lo d'avoir détourné des fonds dans un marché très juteux destiné à la flière arachide. Reste à savoir avec toutes ces révélations que le procureur de la République va-t-il s'autosaisir pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Merci à vous, Pape Farané. Encore la commission de discipline de la paire va plancher sur le sort de Mustapha Cicello et Chérifia. Nous recevrons euh, certainement euh, dans cette matinale euh, Youssou pour commenter cette actualité. réseau des de la paire, avec un euh, verbe et puis également sa liberté de ton. C'est la raison pour laquelle donc on va le recevoir Youssou Touré vers 8 heures pour commenter cette actualité, tout comme Barkaba quand même qui est journaliste, analyste politique, qui est également chercheur en relations internationales. Un euh, secteur également sous tension, euh, c'est le secteur de la justice avec le Sud-Just qui va entamer euh, sa quatrième semaine de le syndicat des travailleurs de la justice a décrété partir de ce lundi 72 heures de grève et il compte poursuivre euh, la lutte de euh, ses revendications. Nous son secrétaire général, il s'appelle euh, Maître Boun Ayam Malik Diop, interrogé justement de 72 heures à partir de ce et nous comptons continuer la lutte jusqu'à la matérialisation des réformes porteuses de satisfaction des revendications des travailleurs de la justice. Nous entamons ainsi la quatrième semaine de grève et si c'est nécessaire, nous continuerons la semaine prochaine, ainsi de suite, ainsi de suite. Le service public de la justice est dans un dysfonctionnement indescriptible, fortement ressenti par les usagers. C'est pour vous dire que nous sommes plus que déterminés à faire face à l'inadmissible et à l'injustice de la part du ministre de la Justice, qui visiblement tente de remettre en cause non acquis parce qu'il supporte mal les critiques que nous lui faisons publiquement. Mais il n'a qu'à déchanter, car nous allons continuer la dénonciation et la protestation aussi longtemps que cela sera nécessaire jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications. nous sommes déterminés à lutter jusqu'au bout. Autre revendication, ce sont les jeunes du quartier de Dar es Salaam de Sébikotane qui se disent oubliés par l'État du Sénégal. Selon eux, cette commune qui marque les limites entre la région de Dakar et de Thiès manque de tout. Ils étaient aussi, euh, disent-ils, laissés en rade lors de la distribution des kits alimentaires. Explication au Sénégal. Située entre la région de Dakar et celle de Thiès, la commune de Sébikotane manque de tout selon les jeunes de l'association sportive et culturelle du quartier Dar es Salaam. Selon eux, leur localité ne dispose pas de structures sanitaires capables de prendre en charge leurs préoccupations sanitaire encore moins de lycées ou de stades fonctionnels. Nous avons une population jeune et cette jeunesse également a besoin de s'épanouir. Cette jeunesse également a besoin d'endroits où ils pourront exercer leur activité. Nous sollicitons véritablement et vivement euh, l'autorité centrale pour qu'il nous aide justement à avoir un stade fonctionnel. Mais également, dans ce contexte de, de pandémie, on sollicite le gouvernement aussi pour un hôpital. Parce que Sébicotane est une commune qui aujourd'hui regorge de plus de 50 000 âmes. Et aujourd'hui, nous avons des difficultés dans ce secteur. Mais aussi, euh, parlant de l'éducation, il y a le lycée moderne de Sébicotane. Nous avons besoin de ça. Et ça, je pense que ce sont des infrastructures sociales de base que la commune de Sébikotane en général a besoin. Dans le cadre de la mise en œuvre de leur programme citoyen, ces jeunes de Sébikotane ont assisté les populations démunies laissées en rade dans la distribution des kits alimentaires. Et également, aujourd'hui, euh, nous sommes en train de faire la distribution des, des, des kits alimentaires. C'est justement pour vous dire que l'ASC e Dar Salam euh, est une association sportive mais également culturelle. mais aussi qui pense tout simplement au bien-être de sa population, qui essaie également de l'accompagner dans, toutes les initiatives qui vont dans le sens de, de la solidarité, de la citoyenneté également. Bien apprécié par les nombreux bénéficiaires qui se disent conscients que l'État ne peut pas tout faire. Par ailleurs, ils invitent également la municipalité à appuyer davantage ces jeunes qui ont réussi à aligner une équipe de football à la troisième division du championnat national. mon environnement avec les riverains de la baie de Anne qui veulent préserver leur cadre de vie. Et ils ont tenu ce dimanche une journée de nettoyage et nos reporters Cher Diop et Amadouba y étaient. Il s'agit de la sixième opération de nettoiement effectuée dans cet endroit. Nous sommes à la baie de Anne. Plus de jeunes sont mobilisés Objectif, changer le cadre de vie. Donc important que les associations venues de tout, le, tout Dakar et tout le Sénégal, parce que nous avons des gens qui sont venus de Mboro, de Mbour, de Yoff, de Wakam, ensemble pour montrer qu'on peut faire un geste utile à l'environnement. Il s'agissait de nettoyer la plage, de mettre le tout dans des sacs à oignons, parce que c'est une nouveauté. Parce que ça permet de tamiser le sable et d'amener que les ordures. Et une fois à Mbabus, ce sac, on peut le recycler. Les travaux de dépollution de la baie de Hann vont débuter au mois de septembre prochain. Selon Bakesek, une vieille doléance. Ça fait 18 ans que nous attendons. Aujourd'hui, avec le canal qui ne donne plus de déchets, on peut mettre en place un programme de déchets, de gestion des déchets solides sur la baie de Anne. Ça peut procurer des emplois, gérer l'environnement et respecter toutes les dispositions législatives et légales. Le bradage du littoral est aussi évoqué au cours de cette activité. L'association riveraine de la baie de Anne déplore. Le littoral sénégalais appartient à tout le monde. On ne permet pas aux nantis de l'occuper au détriment des populations. Alors que la Constitution, le Code de l'environnement, la loi sur le domaine public maritime, euh, qui est portée par le Code de la marche, marine marchande, toutes ces lois permettent aux populations de disposer du littoral. L'environnement joue un rôle important dans la vie humaine. Ces jeunes s'engagent pour changer le cadre de vie de la baie de Anne. Voilà, euh, euh, euh, la baie de Anne disait que c'est la plus belle de l'Afrique, mais quand même, <laughs> au fil du temps, On voit que euh, a littéralement changé. Ouais, voilà. en tout cas, la Bédane a atteint même euh, une situation de dégradation très avancée hein, due au rejet euh, et de, et, et de déchets domestiques, Chérif. Ah, bien sûr, comme Mbaké l'a dit dans le reportage, je pense que Diao parle de l'Afrique, mais on dit même la plus belle baie au monde, oh. hein, même le Copacabana de, de, Rio de Janeiro. <laughs> Malheureusement, comme vous l'avez dit, on est confronté à beaucoup de problèmes, au-delà même de la pollution. Mm

temps au Maroc quand même pour un benchmarking, pour voir au Maroc comment quand même les populations sont parvenues à régler le problème de ces quartiers-là qui, qui, qui, sont quand même logés euh, près de, ces, de cette mer quand même. Et je pense qu'il faut le faire et que des gens comme Baké quand même font du bon boulot et il faut quand même les encourager. C'est un homme politique, mais au-delà de ça. Il faut saluer quand même cette démarche euh, citoyenne euh, quand euh, euh, il commence à montrer l'exemple euh, aux autorités quand même. on applaudit des deux mains et et on a l'habitude de dire encore sain dans un environnement ou c'est le contraire, je ne sais pas. Tout à fait. quand même, on a besoin d'un environnement pour mm. s'épanouir. En tout cas, euh, en plus, on des jeunes. de plus en plus, euh, euh des opérations de nettoiement. C'est très important et les populations sont impliquées. Merci beaucoup, cher Tidjan Diao, pour cette première tasse d'information euh, bien digérée, j'espère. Euh, Légui-légui, dañuy dalal Lamine Samba ci li ci yéene kay. ngook Lamine Samba ni ma leen ko waxee woon moom la ñuy euh, àndal euh, tous les matins ci info du matin ci télévision Futurs Médias Lamine Samba mbégte la ñu am bokk ak yow plateau bi. non mbégte bi c'est partagé maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant bu baax a baax. Mm-hmm. Fatia Chérif man ak moom ñoo bokk association mais association boobu <laughs> après dinañ ko leeral quoi. dafa am lu grave lu xew quoi. Mm-hmm. maanaam damay wax Cheikh Tidiane Diaw rek ne ko matinalement vote. fa yem quoi <laughs> non. Ah, non yàlla dafa garaaw quoi gis nga lii ñuy def nii. maa moom dañ ko doon def. Mhm. Walf six heures du matin. Mhm. mais dafa am lu ci juddoo woon lu bari loo xam ne après lay leer quoi. Ah, mais maa ngi am kontaan de trop. Ah. non mi ngi daw. <laughs> mi ngi daw mi ngi daw. ñuy wax sénégalais yëpp nii incha allah rabi nañu ñaan rek. Mhm. nii lañ ko fas yéenee defee. Euh, comme ni ñu koy waxee rek. matinalement vôtre. ñu fas yéene leen jox ah euh, bi ngeen yitteel ah ci wàllu information muy information boo xamante bu leer la mais je tiens à ce que ma leeral lenn fii ñu taxaw nii Lamine Samba journaliste bi moo fi taxaw pour joxe information mm-hmm. tout court mm-hmm. info <laughs> non le tout petit journaliste bu joxe information tout court aha ci li ci yéenekaay yi ok ñu tàmbali li ci yéenekaay yi ak euh, Euh, je crois que mun nañ ko tàmbale ak euh, l' observateur yéenekaay ah euh, l' observateur yéenekaay fi mu dikk ak ñun mooy mbiru Eumeu Sène xam nga boobu ak léegi ñi ngi doon wax ni Eumeu Sène dafa am ku doon bëgg sàcc otoom bi mu bëgg sàcc otoom ah nit ñi ñëw faat ko mais gis nañu ni baayu xale bi dafa dugal Eumeu Sène ne lépp lu fa amoon mi ngi Eumeu Sène fekkee woon na ko donc am na ci ñaari jegeñaale Eumeu Sène yoo xamante ni sax nëbb nañ leen jant bi waaye l'observateur yéene kaay tey fi mu dikk ak ñun dafa ne Eumeu Sène de dugg na ci rapitub sàmbalaw bi su ne suñ ne nag dugg na ci rapitub sàmbalaw bi mooy dina wàcc mais du wàcc fi ko neex ndax euh, autopsie bi li mu génnee mooy xale bi dañ koo dóor ba mu mokk ba mujj génn àdduna artemisia bi nga xamante ne nii ñi ngi ko ci ñu ngi ci doon wax boobu ak léegi euh, ci mbiri euh, coronavirus nee nañu nan la war a mën a def ba mun ko yor fii ci biir sénégalit it ku yor l'observateur di nga ko gis ci biir waaye tifaare saaga yi Moustapha Cissé Lo yaa xam mbay ak ki nga xamante ni moom mooy Farba Ngom l'observateur yéen kaay dikk na ci ak ñun nee na lii moom dafa ëpp Euh, ba mu ëppee ba tuuru ci la palais bi ñoom ñoom it jóg Euh, ne nanu rëq euh, ndiggu Moustapha siselo noonu la ko l'observateur yéene euh, xamale tey jii su suba booy xool Mansour wadd ñu bari dañ koy fàtte ci équipe nationale bu Sénégal ci góol yeeg yooyu naka sudul noonu kii di l'observateur yéene kaay dikk na ak ñun ne munuñoo war a mën a fàtte Mansour Wade ci atum 2002 ndax li mu def ci Sénégal ni mu doon tàggatee gaynde yi ci wàllu góol ak ni nga xamante ne doon na ko góole ci jamono jamono yu yàgg ya Massour Wade mi ñu bañ a fàtte l' observateur yéenekaay dikk na ci ak ñun gannaaw l' observateur yéenekaay am na beneen yéenekaay boo xamante ni nii dikk na ak ñun euh, ci weneen fànn apulaay ñu ñëw ah waaw euh, les échos les échos dafa dikk ak ñun ci euh, mbirum Eumeu Sène ba tey parce que lu defu waxu lu aay di njàmbat léeg-léeg tur dina tooñ boromam léeg-léeg nit dana du def sax fàtti ñu ñu ñu raaxaale ko ci mu ne mbiru autopsie bi di Euh, dafa dugal jege ñaale ëmma seen yi waaye boo yoree ci biir euh, les échos yéen a kaay euh, bi nga xamante ni nii moom la aji fajkat yi def moom la fësal ci xëtam mu njëkk mbiru Moustapha Cissé Lo mi ñu ne ndax dañu koy dàq ci APR wala déet commission de discipline bi dinañu daje ñan ñoo seq commission de discipline bi les échos yéen leeral nañu ko ci biir am na ci ay kàngam yoo xamante ni ñoo fare ci APR ñoom lañu jox Euh, ndomba tànk loolu ngir ñu xool nan la ñu war a mën a def ba dàq Moustapha Cissé Lo euh, ci biir APR ndax wax ja dafa ëpp noonu la ñu ko les échos yéene kaay xamale tey jii ci suba euh, gannaaw les échos yéene kaay am na beneen yéene boo xamante ni it fes na muy laas laas nee na askan wi am nañu lu leen metti mu ne le peuple sous le choc choc bi nag fi mu bàyyeekoo moo doy waar ndax Moustapha si Lo cër bi nga xamante ni réew mi jox nañu ko ko ak ndombo tànk gi nga xamante ni nii moom la yor député CEDEAO nekk premier ministre euh, premier vice président ci assemblée nationale euh, tifaare ay saaga yaa xam ak ki nga xamante ni moom mooy Farba waaye boo yëree ci biir yéenekaay bi di L'As Quotidien dafa mel ni euh, L'As daf ñu doon wax ni ñii doon nañu togg saabu xam nga lan mooy togg saabu merci booy togg saabu saabu bi ci suuf lay baxee dem ci kaw maanaam mun nga jël barigo di ci togg saabu mais booy togg saabu ci suuf lay lay lay tàngee mhm. jëm ci kaw mun nga jël sa loxo dugal ko ba ci biir mu sedd guy mais bu saabu bi commencé ñor boo dugalee sa loxo mu lakk la ndax boo euh, lii far Ngom ak yaa xam yaa xam mbay ak Moustapha Cissé Lo merci waaw waaw waaw dañoo bàyyi ba jaan dem ñu topp bay bayal merci dañoo bàyyi ba jaan dem ñu topp mm-hmm. ca wàttit mm-hmm. la noonu lañu ko laas quotidien xamale mm-hmm. euh, tey jii ci suba kannaaw euh, laas ba tey euh, muy euh, ndell yi nga xamante ni nii ñu ngi koy sulli ca Casamance mm-hmm. euh, ndax boobu ak léegi ñu ngi doon dégg ci fan yëpp am na ci benn daamar boo xamante ni sax mm-hmm. daamaru larme la mm-hmm. suuxoon na ci ndell yàlla def na ci jàmm am na ci ñoo xamante ni ñàkk ñu seen bakkan mais am ci ay way takk der yoo xamante ni gaañu am nañ ci ay gaañu gaañu yu miti miti quotidien yéen kaay na nag armée bi dugg nañu ca Casamance ngir bépp ndell boo xamante ni ma nga fa ñu ko continuer ci réewum Sénégal noonu lañu ko le quotidien yéene kaay xamale kannaaw mm. euh, le quotidien yéene kaay geneen yéene kaay boo xamante ne nii mi ngi yeewoo fii ci biir réew yi am na lu mu wax Abdoulaye ban yéene kaay la le moom la Abdoulaye gannaaw le libération ah nee na ah euh, diggante euh, Dakar ak Bamako mm. mbiru terrorisme ndax am na ci benn waay boo xam ni teg nañu ko loxo Euh, teg loxo gi ñu ko teg loxo ak li mu tudd muy Cheikh Dieng euh, dañ ko teg loxo ca euh, Mali am na ci noo xamante ni daal nee nañu lu ciy lëndëm boo déggee sombre yaakaar naa ne mooy am na luy lëndëm mm. ci mbiru terrorisme boo xamante ni nii ñu ko fay wax mm. ci saarit nee nañu am na lu fay xeeñ mm. la fay xeeñ mooy mbirum ger nangam sàmna mm-hmm. loolu na ko l' observateur yéene kaay dikkee l' observateur yéene kaay dikk na ak ñun libération ah, libération yéene kaay mm-hmm. ah, lu dafa wax lu aay oh. ah, ci sa omi tànk <laughs> libération dikk ak ñun mm-hmm. ci feebar bii di coronavirus nee na léegi am nañu téeméeri ak fanweer ak ñett yoo xam ne ñàkk gum nañ ci seen bakkan gum la ñuy wax ndax bilan bu tey bi waddagul bu ñu jógee ci libération yéene kaay dañuy dikk ci beneen mbir moo xamante ni ni beneen yéenekaay boo xamante mi ngi yeewoo ci biir réew mi. Mhm. ah muy Vox Populi. Mhm. Vox Populi dafa ne ah Macky Sall euh, dugal na euh, euh, Moustapha Cissé Lo ci rapitop sàmbalaw bi mhm. ndax lii dafa metti loolu moom moo tax moom ci jëmi boppam moo joxe ndigal. ngir ñu lijjanti mbiru Moustapha Cissé Lo ndax wax ci dafa ëpp. noonu la ñu ko wax ji waxee. waaye nag dafa mel ni euh, ci biir Vox Populi euh, Moustapha Cissé Lo dafay tontu Macky Sall ne balaa ngaa naan bala nga may dàq man ma. demal sam bopp mu ne dina tekki ndom bu tànkam bépp boo xamante ni moom la am ci biir APR muy vice présidence assemblée nationale bi nga xamante ni ndom euh, politique la ko amee woon dina ko tekki léegi député simple lay doon. te tey jii ci suba. ci jamono jii ñuy wax ak yéen sax su nekkul ci tànki dem assemblée nationale. Euh, yóbbu euh, ko ci Moustapha Niass euh, dina jaaxal ñu bari Vox Populi it dikk na ak ñun ah ci waa ji nga xamante ni nii entre guillemets assassin la tudd. dañ ko bàyyi. Macky Sall da koo jéggal ci korite gi. bërki démb mu jël ciseau rey nit. Vox Populi ne ba mu reyee nit bu nuppi dafa dem bu maraîcher ngir jël woto ngir daw fa nga xamante moom mooy Gambie. Mhm. foofu lañ ko tegee loxo doy na waar ah. ñu mhm. gracier la ci korite. Euh, matul ñaari weer mbaa ñetti weer. nga rey nit delluwaat. kon dafa mel ni dafa bëggoon delluwaat. noonu lañ ko mën a waxee. sax euh, ban laataa ñu koy bàyyi parce que dem. Mhm. yenn euh, ñoom bay kenn du leen gracier mhm. mooy comme rey nit ak trafic de drogue ak viol pédophilie mhm. léegi day crime yoo xamante ni nit bu ko defee kenn warul la bàyyi way ok nee nañu université yi dina ubbi waat le premier septembre Euh, comme ni euh, xale yi nga xamante ñu ngi def examen. Mhm. ubbee euh, ci weer wi ñu mhm. génn. Mhm. nee nañu nag Vox Populi nee na école bi dina ubbiwaat ay université dina ubbiwaat. ci benn fan ci weeru. septembre noonu lanu ko Vox Populi euh, xëy xamale te jii si suba mm-hmm. gannaaw Vox Populi ñu dikk ci beneen yéenekaay boo xamante ni mooy yeewoo fii ci biir réewum Sénégal muy Source A euh, mm-hmm. Source A dafa dikk ak ñun ci gazelle Oryx yi nga xamante ne nii dañu leen rek mm-hmm. am na sax ab jëwriñ ju ñi nga xamante ne tudd nañ ko ci euh, gazelle yooyu nag am na ci ñoo xamante ni nag mii ñu coom na noonu ndax loo xamante ni àll miin nga jël ko dugal ko ci ab daamar nara a daw ak moom ay kilomètres kilomètres am na ci ñoo xamante ni ni euh, ñàkk nañ ci seen bakkan euh, kii euh, jëwriñ la woon ci jamonoy Macky Sall moom it wax na ci mbiru Moustapha Cissé Lo ci biir source a Mbagnick Ndiaye Mbagnick Ndiaye nee na képp koo xamante ni jàpp nga Assane Diouf waroo bàyyi Moustapha Cissé Lo muy noyyi ci ngelaw péex bi mm-hmm. ndax li Moustapha Cissé Lo def ak li nga xamante ne ni moom la Assane Diouf def ñoom ñoo bokk ndey baay yumpaañ bàjjan maam. loolu la Mbagnick Ndiaye def. <laughs> Ngor Lamine Samba revue de presse bi am na solo. waaw loolu comme comme comme première la. waaw nii la c' est en ah, <laughs> <laughs> kon liggéey bi liggéey bi daal rafet na ah. macha allah ñu ngi lay sant. gërëm ak sant di yaram Chérif. yaa ngi doon wax. làmb ji waaw maa ko doon wax ne Lamine comme moom ku ne xam muy chroniqueur làmb mag fii Sénégal ah c' plus grand chroniqueur mal tab tab googu. waaw mais mais malheureusement dafa am ñaari événement yoo xam bëgg nañ ci wax benn bi mooy euh, affaire Eumeu Sène boobu comme yéen yéen ak ci làmb ji di suivre dossier également muy loo xamante ni euh, dossier la boo xamante ni ñu ngi koy ciy tudd sàcc oto et cetera euh, fan la mujj la. je crois que les commentaire mm-hmm. bien sûr ah, am na waaw les faits sont sacrés les commentaires sont bien sûr génn nañ ci faits commentaire bi. Mm-hmm. man sama jëmmi bopp j'ai eu Eumeu Sène au téléphone man personnellement. Mm-hmm. Euh, jàpp nga ni nii euh, damay def journal RFM samedi ak dimanche bi bàyyi xale bi ñëwee ba tuumaal ko man woo naa Eumeu mm-hmm. mu ne moom ci jëmmi boppam lu tax du wax mooy gendarmerie woo nañ ko entendre ko. bi ko gendarmerie woowee ba entendre ko ba noppi. Mhm. kon donc moom lépp lu muy wax yoon la koy wax. Mhm. du ko wax ay taskatu xabaar. tout à fait loolu la ma wax mu leer. kon ci boobu mhm. jàpp ni loolu la wax. kon loolu la ñuy jàpp. très bien ci beneen point bi mooy Jules Baldé Junior benn mbër la bu gaañu. feebaroon feebar bu yàgg mais man laaj bi mooy laaj mooy parce que gisoon naa ñu ko fi doon ketal et cetera. xanaa yéen mbër yi ñoom duñ dem ci CMU bi di ñu leen di. di foofu su ko defee ku am jafe-jafe ñu mën laa taxaw. dafa am dafa am loo xamante ne dama la koy xamal muy lu tuuti. muy mbër <coughs> baal leen moom muy promoteur. privé mbër mu gañee xaalis ci poosam la koy yóbbu moom ak njabootam. bu gañee xaalis poosam la koy yóbbu moom ak njabootam. est-ce que forcément mbër mi feebar dañ ko war a jël dem yóbbu ko faji ko bonne volonté yi ñooy jóg. mais mais avant avant nga yegg ci ñooñu mais dañoo am structure boo xamee ni moom moo leen gérer muy CNG. structure d'exception. waaw mais mais mais ba léegi moom mooy gérer làmb ji te ñu bare dañuy wax ni que euh, structure boobu day faral di dagg xaalis ci ay combat xaalis boobu kenn xamul euh, fu muy jaar kenn xamul luñ koy. utiliser indi problème bi xam nga lu indi problème bi. Mm-hmm. CNG amul kenn ku muy rendre compte pour ministre bi directement. Mm-hmm. ministre bi nee li ko CNG di rendre bilan financier doy ko. bilan bépp bilan boo xamante ni nii waa euh, mi ngi am ci làmb CNG mi ngi koy jox ministre bi te ministre bi nee satisfaire na si léegi taskatu xabaar bi ci jëmmi boppam ñoo war a am curiosité ñëw ba ci moom ne ko lii ak lii ak lii ak lii am na lu muy mun a leeral am na lu mu munut a leeral. mais mais avant ngi yegg sax ci affaire euh, nu organisation fonctionnement structure bi mais am na loo xam ne je pense que. Euh... yëfu humanitaire la xaw ma nu mu demee. soo ko xoolee da da nga ci war a euh, def sans que. discipline yëpp dama lay dog discipline yëpp ñoo am fédération ba mu des làmb. waaw même bu du fédération maa ngi ñëw Cheikh maa ngi ñëw dama lay expliquer parce que xam nga tey en matière de football handball volleyball tout ce qui s'ensuit dañu structuré ba nga xamante ne nii bu la lii jotee lii mooy am bu la lii jotee mais maa ngi posé waat benn question. képp koo xamante ne nii da nga licencié on était à huit mille cinq cent et quelques ci at bii ñu génn da ngay jënd li nga xam ne moom la ñuy wax assurance xaalisu assurance boobu anoon fan la jaar nan lañ koy jëfandikoo je donne ma langue au chat léegi nag loolu nag nag pour ñu gën ko leeral dañ mm. xaar jongante doom bi <laughs> voilà mu ngi noonu <laughs> ay question la yu mérité ay réponse Lamine Samba ñu koy sant bu baax di ko gërëm dig la daje ëllëg ci kàttan lundi mardi mercredi jeudi vendredi. mu ngoog Lamine Samba ngeen a àndal ci info du matin ñu lay euh, <laughs> waaw samedi dimanche dem dem journal <laughs> on te souhaite une très bonne journée euh, bu fekkee yéen a ngi ñuy soog a dab téléspectateurs yi 7h31 minutes mooy soog a jot tout de suite dañuy def euh, miroir régional miroir euh, régional ci euh, info du matin dañ koy doore ak li xew ca Ndakaaru ca banlieue ba fa ñu naan Malika Abi fay taxaw seetlu bi mu fa def mooy foncier xam ngeen ne coowal suuf nag jamono ji euh, dafa lëmbee Sénégal Ndakaaru rawatina foofu ci Malika dañoo jàpp ne nag seen sa suuf dafa am ñu ko aakimoo ba noppi itam ñu bëgg a toj seen i kër yu ni mel looloo tax na nag ñu daal taxawal seen kuréel xeex nag lu mbir moomu Abi fay lañ ci fas yéene àndal ak Modou bi yembee ñu seetaan ko dellusiwaat léegi suuf mi ngi gën di law ca diwaanu Malika bi la yoon cité Serigne mun a jàlloo xiis ga mbatal yéen ñoom ñoo booloo nekk ci benn collectif. toll nañ ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari kër yoo xamante ni Descos mabaloon na ko ñoom ñi tey ñu bëgg a jëlaat seen suuf waaye déet ab promoteur moo ñëw fa seene tabax loole nekk ci diwaanu forêt classée bi lii lée nekkoon sax zone boo xamante ne de restructuration la ñoom ñi mer ba futt la ñu def gannaaw ba nga xamante ni tamit seen marche googee aaye nañu leen ko ñu jonoog taskatu xibaar yi yéy yàbbi ne 2020 bi Descos def fi duggoon ak benn escadron gendarmerie équivalent wu champ gendarme benn vendredi suba teel lañ fi ñëw démolir fii équivalent wu 147 maisons joxuñu ñu benn sommation demuñu ak benn promoteur ci yoon ba ñu am ba ñu am ordonnance bu jógee tribunal mu doon ak euh, mbir mu doy waar ci Sénégal depuis boobu nag ñu ngi yéeg di wàcc on a rencontré avec le gouverneur deux fois gouverneur bi ñu giseek moom lii ñu def fii yëpp moom moo ñu ko wax dem leen ngeen jël ay jël leen huissier ngeen def kosaa yi jël nañ huissier yi def ay kosaa jël nañ ay poulu d'avocat yëbbal nañ ko moom document yi ñu moom euh, gouverneur sous préfet tamit jël nañu ay plusieurs reprises ñu waxtaan ak moom moom mu xamal ñu ne euh, dossier bi mu ngi en ba tax na itam fu ne lañ leen fas yéene diree loolee ñu ne ñoom fas yéene wu ñu ko nangu benn yoon ndaxte laf nañu. mais chaque jour dañuy gis ne dañuy def ñu ñun li ñu naan ping pong dañu nekk tey bu ñu defee ba si ñu ne la noo Covid bi jàppal bàyyal te chaque jour dañuy gis service état yi nga xamante ne ñoom ñoo war a encadrer population bi pour ñu nekk ci jaamu ñoom ñooy encadrer promoteurs yi. li ñuy gën di sàkku rek moo di barab ba nga xamante nit moom la ñuy sàkku ne ñoom ñii ci seen bopp ñoom ñoo ko moom l'état wu Sénégal déclassé lii ndax tamit ci forêt classée bu mbaaw la bokk mbaalu ko mooy itam ñu delloo leen seen moomeel ndaxte itam lu leen leew la ñu ne bëgg état wu Sénégal comme fii forêt classée la ñu déclassé ko wala ñu def li ñu naan ñu delloo suñu moomeel moom moo ñu indiloon acte 3 2016 mu ne gën a yàgg gën a yey gën a jege gën a yey fii ñoo fi gën a yàgg ñoo gën a yey kon nañu ñu delloo suñu moomeel loolu lañ koy laaj. waaye itam tax na ñuy artu ne bu lii antuwul daañu yëngu-yëngal ñàkkul itam waajal nañu seen bopp rëdd nañ li nga xam ne ab mémorandum la. li ñuy def duñ leen ko wax dañuy xëy gis ñu ci tali bi parce que ñoom moom lii kenn duñu fi jëlee incha allahu bi parce que ñun ñoo moom suuf si. mémorandum bi pare nañu ko bu ñu paree dañuy ànd ak yéen léegi dem jébbal ko maire bi bu lëndee dinañ ko jébbal sous préfet bi moom mi nga xamante ne moo fi nekkal l'état bu Sénégal ñuy xaar nag jeudi li mu wax mu def ko parce que moom moo ñu woo wax ñu ko su ko deful dimanche bii di ñëw dina gis loo xamante ne duñ ko ko wax incha allahu rabbi coowal suuf di gën di lëmbee fii ci Sénégal gannaaw na leer waa Malika jóg ñoom ci seen boppamit di laaj seen suufuk maam nga nga xam ne ñoom ñii ñoo ko moom ñu ne loolee tax na itam fa yéene bàyyi mbir mi benn yoon. Habib euh, Faye di ngeen ko euh, am ci yeneen i bés du ñàkk fii ci plateau info du matin mu ànd ñun commenté euh, gëstu bës bi dégg ngeen ko nag coowal suuf la muy actualité ndengaleer coow la fayagut daa mel ne sax mi ngi doog a tàmbali Malika ñu yokk ci ak yeneen ak yeneen. waaw litige foncier yi moom Fatick dafa bari trop fii Sénégal te moo tax nit ñi di alerter à chaque fois ne buñ ci waxul xëy na lay jur ay musiba fii Sénégal loolu mën na mhm. que comme ni nga ci lii boobu nga wax. Mhm. wala nga dem dans la vallée du fleuve Sénégal wala diwaan yu ci bëri di gis mooy wàllu suuf yi nag wàllu dëkkuwaay la muy yoo xamante ni je urge que nit ñi jël ci ay matukaay parce que kër day loo xamante surtout la ci borom kër mhm. parce régleguñ seen problème ñi nga xamante ñoo nekkoon cité Tabago la même chose ay nit ñoo ñëw di leen démolir et ak promoteur immobilier yi nga xamante ni également ñi ngi ciy ni bokku ci yi nga xamante ni kon population yi ñu ngi koy ñaxtu je pense que mbirum foncier garaaw na garaaw goo xamante ni fii ci Sénégal ci atum 2014 créé woon nañ fi benn commission boo xamante ni li ko tax a jóg mooy ci wàllu réforme foncière def nañ liggéey boo xamante ni sotti na ba liggéey bi pare également jébbal nañ ko njiitu mu la ca desoon mooy ñu appliqué ko boobu la rek woon ci yu Mm. Euh, ah Cheikh Tidiane lu jar a waxtaanal xam nga itam euh, Chérif suuf dafa bokk ci suñu dund dangay gis ñoo xam ne rawatina ñu seen loxo jotul seen gannaaw ñu neen seen suufu maam la ñu dafa daan bay di fa liggéey xam nga ñu xëy xëy rek ñëw euh, nangu suuf si ñu bëri ci ñoom dañ naa nag dafa nuru ak jaay doole muy ay mbir yoo xam ne itam des cee war a taxaw xool naka la ñuy def ba andi ci ay solution quand même. waaye bon je pense que quand xaw na jege jaay doole nag euh, mais aussi bon système la système doo ko comprendre parce que suñu ñëwee jël benn opérateur économique jox ko suuf pour moo exploité ko bon dañuy wax tamit ñi nga xamee aussi ñoom ñoo moom suuf boobu ñi nga xamee ne ci la dundu dund est-ce que dinañ ci gis seen bopp et souvent c'est pas le cas parce que waa ji moom ay intérêt am lay xool et puis loolu dafa dem ba tax ni euh, nu mu tudd suuf di gën a cher fii Sénégal euh, mm. chaque année prix suuf yi day multiplier wu day multiplier wu te te loolu nag moom mooy andi drame yi ñuy faral di gis nii gis nga waa ji ci reportage bi mi ngi mi ngi artu naan naan naan su xaw ma la prochaine fois su ngeen fi ñëwee lu ngeen fi gis loolu ça veut dire que dañ pare nañ ci teg seen bakkan ba ba jaay seen bakkan mm-hmm. uniquement pour pour pour suuf on se rappelle euh, de ce drama à Sangalkam mm-hmm. l'affaire Malick Ba mm-hmm. xam nga yooyu yëpp dafa dafa doy waar quoi moo tax suuf moom li ñuy wax moom dafa dafa bëri coow xëccoo xëccoo bi bëri na ci lool lool lool lool te à chaque fois quand même je pense que ay drame moom moo ci juddu comme ni ko Chérif waxee état bi war na si jóg vulgariser affaire yi. Mm. ñu yombal ko tamit ku nekk mën ci jot. surtout surtout. aller nag mm-hmm. au au fond bu coow li bëree léeg-léeg ñu tàmbali après dañ koy tegaat ci suuf moi je pense que régler ko une bonne fois pour toutes euh, dina ci baax Habib Faye ñu sant ko bu baax gërëm ko fayen la nag dafa xaw a tardé ndéego euh, waaye euh, ci beneen yoon di ngeen ko am ci info du matin Habib nag xaw ma foo nekk yaa ngi ñuy seetaan ñu lay jaajëfal bu baax naka noonu Modou Diop ñoom ñu nekk fële ci banlieue bu Dakar di liggéey liggéey bu am solo matin ñu doxantu ndar ge wax lu jëm ci mbas meek tolluwaay bi euh, foofu ca ndar bu mu duggee ci réew mi ba léegi ñaari fan ci weeru mars ñu ngi ci ñaar fukki doomu aadama ak ñeent yu ko amee kenn ci ñàkk ci bakkanam fukk ak juróom wér juróom ñett euh, ñoom nag euh, fi mu ne nii ñi ngi ci am paj ñi nga xam ne nag ñoom ñooy délégation bu ministère de la santé ba mu doxantoo ndar géej la mu di gis doy na xelam dañ ci ànd ak gëstu Ousseynou Diop ak Habib Seck ba mbas bi tàmbal léegi léegi ñaar fukk ak ñeent ci ay doomu aadama daan nañu am jàngoro bi nga xamante ni moom ñu duppee coronavirus. ñoom ñett léegi rek ñoo nekk ci lu jëm ci wàllu bërëbu fajukaay yi benn nag daal cee ñàkk bakkanam docteur Seynabou Ndiaye di médecin chef bu région bu Saint-Louis jàpp ne sax liggéey bi mu ngay wéy te itam sax ñoom jamono jule xeex bi ñu ngi koy ci diwaan bi. ñoom ñetti nit ñoo fa nekk fi tool ni te wax dëgg yàlla seen situation santé euh, stable na fi ñu toll nii euh, suñu euh, ci ndar ñoo xam ne euh, diagnostiqué nañ leen ñu nekk euh, positif ci Covid 19 euh, donc loolu laa mën a wax ci tënk ci li nga xam ne situation épidémiologique bi la fi. ndaje bi organisation mondiale de la santé àndoon ak ministère de la santé doon amal fi nag lu jëm ci wàllu matukaay yi nga xamante ni jël nañ ko ak bërëbu fajukaay yi nañ ca taxawee loolee dal na xelu conseiller technique bu ministère de la santé. mais aussi ci biir famille ñu defalante parce que ñi ngi jëm vers lu en charge. de cas à domicile donc loolu il faut une responsabilité familiale il faut nit ñi vraiment mën koo gérer bu baax donc loolu daal ci tënk ñu ngi remercier ñëpp. Ndar Géej nag célébé yoon la ci lu jëm ci wàllu dem bi dikk bi ndaxte fii dafa frontière ak Mauritanie. ñu gis ni nag limu ñi nga xamante ni jóge nañ ca Mauritanie ba mbaas mi tàmbaleeg léegi dugg ci dëkk bi toll na ci junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ñenn ci ñoom nag daan na leen di testé ñoom feebar bi ñu duppee ko. Seynou Diop euh, moom lañ ci àndaloon ci miroir régional léegi léegi dañuy jokkoo ak moom ci euh, bu mu jokkoo gi waaye laataa loolu itam def taxaw seetlu bi euh, ci mbas mi ak tolluwaay bi comme niñ koy waxee fukki région yi ak ñaar daj na kapp ndar itam bokk na ci région yi nga xam ne mbas mi waaye gis nañu ne itam euh, ñu ngi koy gérer bu baax a baax. waaw ñu ngi koy gérer moom Saint-Louis boo xoolee comme ni mu ko waxee cas yi euh, c' est vrai que à un moment donné amoon nañ premier cas communautaire mooy ki nga xamante ni mareyeur lan woon ñu ne dafa jëloon camion frigorifique mm-hmm. dugg fa mbas mi fajoon noonu ko mais également comme ni nga ko waxee rek mbas mi moom daanaka bàyyiwutul fenn mm-hmm. euh, parce que comme dañu woyofal affaire yi mesure d' yi ñu jël ko donc nit ñi di dem ak dikk moom moo tax kon mm-hmm. région yi ci mi daal di fay dugg li ci gën a garaaw nag mooy comme ni nga waxee ba léegi rek mooy nit ñi bàyyeeku gi parce que que foog ñu dund ak euh, li nga xamante ni mooy virus bi mais ci am solo mooy nit ñi am ci également responsabilité rawatina ndaw yi nga xamante ni xëy na ñoom mën nañoo nekk ay cas asymptomatiques wala seen doole tool na foo xamante ni mbir mi mën a la bañ a sonal mais ñu koy jël di ko yóbbu ci kër yi wàllu ko mag ñi nga xamante ni kon ñoom la mbir mi gëna a parce que ci téeméer ak fanweer ak ñetti doomu aadama yoo xamante ñàkk nañ ci ñu ci ëpp ay mag lan mm-hmm. je pense que il faut aussi ñu gën a sensibiliser xale yi su ko defee ñu bàyyi xel lu ni baax baax baax xam ne masque yi également dañoo a wéy di ko takk roxo yi di set comme koy waxee gel hydroalcoolique yi saabu yaa ngi fi lépp je pense que il faut que nit ñi di continuer di ko su ko defee mm-hmm. xam ne xamugoon kañ la fi jógee il foog koom gi tamit mën a dund fii ci Sénégal mais également parce que sax loolu loolu moom moo doon boobu je pense que du Sénégal rek mais adduna bi yëpp loolu moom moo leen tënk instant bi soo xoolee euh, dëkk yi nga xam ne dañoo confiné woon déconfiné yëpp euh, deuxième vague actuellement moom moom moo leen song mm, te te te xamatuñ lu ñu koy gérer te ba léegi feebar bi amaguñu réponse yëpp parce que démb rek pas plus tard que hier benn collectif de scientifiques dañoo génne benn xibaar jébbal ko OMS ni que ni ñu ne virus bi day day day day daw ci aire bi mm-hmm. ce qui veut dire que ba léegi même le monde scientifique ñoom jiboo jiboowuñu xamuñu exactement les tenants et les aboutissants de de de ce virus moo tax fi mu nekk nii mm. kenn mënul xam mm. fan la ñu féetee ak moom mm. comme ni nga ko waxee nag moo je pense que euh, stratégie yi foog ñu gën ko foog ñu xoolaat yeneen parce que mënuñ toog tamit euh, sunu mag ñi sunu di di ñàkk sunu mag yi kenn xamul mm-hmm. kenn xamul ndax dinañ toll foo xamee ni dañuy confiner mm-hmm. euh, les personnes <laughs> âgées kenn kenn xamul daal noo noo noo koy kiiwee mais aussi économiquement parlant. Mm-hmm. Euh, foog tamit réew euh, réew yi dund. métti parce que suñu tëjoo nii day day doy waar. am na aussi Sénégal tamit beneen euh, point bu xaw a doy waar boo xam ne démb lañ ko remarqué ñoo gi réanimation. Mm-hmm. commencé multiplier gravement au euh, Sénégal. Parce qu'hier, on nous a parlé de 48 cas hier en réanimation. On se rappelle les propos du professeur Seydi bi mu doon wax ah, naan suñu amee benn nombre bi dina métti ci ñun moo tax boo xoolee tous les jours pratiquement léegi dañuy am décès. Ah non non mais soo xoolee soo ñëwee à 48. Euh, mm. tey suñu ñëwee annoncé le 58 tu te dis mais est-ce que ñooñu ñëpp am nañu lal bu ñu tëdd. c'est ça le problème. Ah, surtout yenn centre de traitement yi nga xamante ne xëy na ñu ngi ci région yi dëkk yeeg Dakar c'est vrai que Dakar moom hôpitaux yi nga xamante ñoo fi gën a ëpp doole xam nañ leen mooy hôpital bi nga xamante ne centre Kiyomo nga xamante xëy na ay nasaraan ñoo ko fa defoon hôpital Fann principal également yi nga xamante am nañ ay lits de réanimation yu dëgër yu wér ay dalal jàmm mais région yi boo fa duggee malheureusement mbir mi dem te comme ni ko Diaw waxee cas ngi yokk donc responsabilité bi foofu la gën a euh, mën a insister ci loolu. parce que mm-hmm. surtout jeunesse bi encore une fois. Mm-hmm. mooy li nga wax noonu parce que mag tamit dafa jar a bàyyam ci ëmb réew. Mm-hmm. ñoom xëy na ñu ci bëri ay comorbidité ay jàngoro yoo xamante ne xëy na fekkoon nañ ko seen yaram waaw bu mbir mi ñëwee quand même mën na gën a faagaagal et je pense que te dinañ dem ba situation boo xam ne ndaw ñi aussi ils pas à ko Diarra Bèye bi nga xamante ne moo jiite sàmm il la di am na ay ndaw yoo xamante ne mbir mi dañ leen moom mooy euh, bayliku gi xam nga léegi daanaka gars yi nee nañ boo demee ci lieu public day mel ni corona dafay jeex donc mu mel ni aussi euh, euh, responsabilité individuelle aussi lu ma ta bàyyi xel la takk masque gi ndax corona bi c'est pas parce dañoo déconfiné que corona bi dem na aussi. bay dem te xamul kañ lay dem ñu ngi jóge ci weekend bi dem demoon tey ci plage yi parce que doon nekk ci jamonoy tàngoor gis nga ni mel nit ñi dafa bari bari goo xamante ne Sénégal li tax mu garaaw mooy. 4 mois bi fi mbas mi duggee ba bu ñu ci débat bu naan nit ñaa ngi dut am ñuy dut naan jàngoor ji am na amut. moo lay wan ni kon presque ñun tous on on a tous échoué quoi loolu lañ mën a wax muy ministère je, je pense pas que euh, ce soit spécifique au Sénégal. Mm. ci àdduna bi yëpp la mm. soo xoolee. mais ñooñu gëm nañ ko jaaw non gëm nañ ko mais. ñu si ëpp dañ koy défier. Mm. ça me rappelle les propos euh, euh, maire Dakar daa euh, ngi wax na ko virus bi mi ngi fii. faut pas le défier. dafa mel ni ndaw yi léegi loolu la ñuy def. parce que dañoo parce que dañoo jàpp ne que mm-hmm. euh, ils ont système immunitaire suffisamment fort pour mën a dégg pour mën ko dékku. Mm-hmm. su leen dalee peut-être que du leen sonal noonu mm-hmm. mais. coow li mooy su leen sonalul tamit mën nañ ci wàllu seen waajur boo xamee ni ça ça peut être fatal moi je pense que côté boobu la ñu parce que démb bi ñuy ñibbi ñoo ànd gis nañu diggante euh, Almadiba xaw ma Almadiba <laughs> <laughs> virage oh, oh, oh. def nañ une heure de temps foofu balaa ñu fay génn lu tax parce que gune place la ñu jógee en masse mm. ça veut dire que ñii ils s'en foutent maintenant du coronavirus euh, xale yi di faatu aussi yaakaar naa dinañ ci defaat peut-être ay yeneen gëstu euh, instant yi xale yaa ngi lap rek di dem gune yi boo xoolee am na benn page bu ñuy woowee perdu de vue sur les euh, sur Facebook mm-hmm. mais ñoom dañuy dugal ñi nga xam ne dañuy réer seen ay mbokk mais damay gis en général wala parfois bu ñu dugalee photo gisuñu ko depuis démb bu ñu xëyee ne malheureusement géej lañ ko fekk donc mm-hmm. comme li pour confirmer juste li jaawa di wax ne xale yi jamono ji ñu ngi dem géej waajur yi fan lañ nekk est-ce que leen yooyu yëpp di ay ponk yoo xam ne aussi dañ ci war a waxtaane ndax li ñuy wax rek responsabilité individuelle ci la bokk quand même mm-hmm. loolu tax moom même gis nga débat bi fi amee ndax dana war a ubbi daara war ñëw ubbi pour gone jàngi ñu bëri loolu la leen waxoon buñ bawut xale yi dem ca école ba ña ñu leen di bàyyi mm-hmm. ñu dem moo euh, te li nga wax noonu sànq tamit lenn égoïsme la même bu amee système immunitaire bu dëgër quand même mais bul ko wàll keneen koo xamante ne ëllëg mën nga ko jural ay loraange beneen bi moom mooy comme li nga ko waxee dañu toll ci réew yoo xamante ne c'est vrai que doole tubaab yi xëy na ñun ni ni suñ stratégie de riposte war naa wute ak ñoom mais na leen di gën a sensibiliser sensibilisation moom nag éducation bokk na te je pense que ci kër yi la war a mën tàmbalee bu tàngee lu mu mën doon c'est kër yi xam nan moom moo tax Sénégal on n'a jamais pensé confiner nit ñi parce que xam na ni mënuñ koo def li koy waral mooy nit ñi amul barab moom moo tax sax ñu ci bëri fipp woon daal di demander à ce que ñu daal di ubbiwaat mbir yi te loolu ça nous donne même l'occasion de reparler encore du mu insécurité et cetera ci mbas système des Nations Unies bi nekk Sénégal ñi ngi alerter seen personnel fii nan leen nañ def ndànk parce que gis nañ càcc keeg yooyu te je pense que loolu ce n'est pas bon pour Sénégal alors que force de défense et de sécurité quand ils ont abattu un travail extraordinaire durant l'état d'urgence et loolu lépp kon moom mooy éducation bi nga xamante je pense que day base boo xamante am réew bu ko ñàkkee on en reparlera bu ñëwee ci kanam ak suñu invité wala mooy ca ndaw la et je pense que il faut que nit ñi Sénégal gën a bàyyi xel quand même son système éducatif. et fois foog nit tamit xam ni que newul nguur moom mooy moom moom moo lay wax nooy aare sa bopp. Mm. je pense que même si euh, assouplir nañu mm. mesure yi. nit moom moo war a am responsabilité boppam di protéger boppam mais parce que doo wax ne gouvernement bi am y a des gens qui disent que oui gouvernement bi dafa démissionner kon amul problème moi aussi damay bàyyeeku alors que soo deewee mais yoonu gouvernement bi newu ci moo tax nit ku nekk moom moo war a jël responsabilité boppam di protéger wu di respecter gest barrières yi mm-hmm. protéger boppam protéger njabootam très Euh, Cheikh Tidiane euh, Diawo Cherif Dia point corona boobu lañ doon waxtaanee xam naa ci kanam tuuti nag na Mbaare Sow euh, dina ci gën a ñëw def ci ab yaatal sànq rek Lamine Samba mi ngi koy junj Sénégal mi ngi ci téeméer ak fanweer ak ñett ci bakkan yu rotagum ndax xam ngeen am na ñu nekk réanimation ñu leen di ñaanal borom bi fëgg seeni bopp waaye itam di fàttali askan bi rek respect mesure barrière mooy dàndantikoo bi professeur Massamba Gueye laay dégg mu naan mooy ñàkk sa bopp ñàkk ña ngay jëflanteel lu ci am solo la Cheikh Tidiane Diawo Ousseynou Diop nag dañu am dafa am jafe-jafe ci wàllum connexion bi moom lañu bëggoon a jokkool en visio app su fekkee ni Ousseynou Diop yemb na euh, ñu dem fekki ko ndar gi bu yembul itam euh, ñu jël ko ci buumu jokkoo gi yaakaar naa ni euh, da ciy am solo ndax niñ ko waxee ndar bokk na ci région yi nga xam ne bi mu duggee fii mbas mi it laal na leen ñu def ci ab liggéey bu am solo tey ji itam am na kenn ku faatu waaye ñu ñoo ëpp ëpp ña des ci bërëbu fajukaay yi ba waa ministère de la santé délégation bi mu fa yebaloon ne li mu gis dal na xelam Ousseynou Diop la ñuy xaar léegi ci euh, bu mu jokkoo gi euh, su ko defee rek mu faram fàcceel ñu situation du jour bi foofee euh, ci diwaanu Ndar waaye ñu leen di promettre ci kàttanu yàlla ne ëllëg ak képp ku nu mën a jël ci miroir bi te nga nekk ci région yi di ngeen gën a gis seen xar kanam ñu waxtaan ak yéen xeetu saafonte ko saafonte rek la ak bëggante ci ñun ak yéen ñi suñu ay téléspectateurs euh, da ci am solo bu fekkee ni Ousseynou Diop jàppandi na ñu fekki ko ndax géej ci mu jokkoo gi su ko defee euh, ñu mën a waxtaanee euh, loolu nga xamante ne si moom mooy mbas mi. Euh, Ousseynou Diop ndax ja euh, euh, noppi na Apulaay ñu jël ko ci buumu jokkoo gi moom Ousseynou Diop lañ fas yéene woon a àndal ci li nga xamante ne si moom mooy buumu jokkoo gi waxoon naa leen itam ne daañu dem ca RFM matin fekki fa Babacar Fall jël gan gi loolu itam dafa mel ni yembagul waaye lu ci mën a am rek ci kanam tuuti itam di sa prera dinañ ko fekk ci kaw tali bi mu dëgtal ñu xibaar yi aju ci wàllu wile eh, baxka baax itam naka noonu eh, ñi ngi ko fi xaar booru 8 eh, heures bu tegalee ay simili tuuti point corona itam Aminata Mbaxe Sow la fas yéenee doon waaye ganu xibaar yi di Youssou Touré fàttali rek la ndax loolu mooy ñaareelu xaaj bi Youssou Touré nag xam ngeen ko coordonnateur réseau des enseignants bokk fële ca APR nekkoon fi ay jamono itam ministre bu xar ak Ndiaye dinañ ànd ak ñoom ci allo présidence ñoom it dañuy commenter actualité rawatina itam actualité bu mën a doon waaye tey jii su ma juumlee lu jëm ci wàllum politique daañu doxantu itam euh, ca Côte d'Ivoire ci régional euh, inter moom Cheikh Ibrahima Fall itam euh, def na ab taxaw seetlu boo xamante ne si ci kanam tuuti daanu ko waxtaanee muy rek fa nga xam ne moom mooy Treichville ak artisan yi xam ngeen ne wuudee Sénégal nag ñu ngi fépp ci àddina wërngal këpp ñoom ñooñu nag mbas mi laal na leen waaye ña ngay def seen kéem kàttan ba génn ci Ousseynou Diop dafa mel ni ba léegi euh, yembagul ci euh, buumu jokkoo gi euh, ganuk RFM matin itam dafa mel ni yembagut apulaay xanaa rek ci xibaar yi ci wolof kon la ñuy dem voilà xibaar yi ci wolof euh, Fati. Mhm. Euh, ñu tàmbale ko ak euh, li nga xam ni moo lëmbee actualité bi di coowal Moustapha Cissé Lo moom nag commission di discipline bu APR ñoom daal nee nañu daal dinañu taxaw ci cas boobu démb la ñu génnee communiqué. di naqarlu kàddu yi nga xamee ni député boobu di Moustapha Cissé Lo amal na ko ci ay ñoñam yi nga xamee ni ñoom la nekkal APR dañuy déglu jàngat bi ak Mame Birame Diouf kaddu yi Moustapha Cissé Lo yëkkati jëmale yenn ci ay kilifa yu mu bokkal parti bi di APR loole nag moom Moustapha Cissé nga xam ni sax dañuy fàttaliku ñaareel ay génnam ak kaddu yoo xam ni dina koy yëkkati kaddu yi nag ñu jàpp ni kaddu yu ñaaw la tax kon ba secrétariat exécutif national bu alliance pour la république génne ab communiqué ci communiqué googee nga xam ne sax ki ko signé di porte parole national bi di Seydou Guèye président Macky Sall moo ngi ci woo commission de discipline bu parti bi di APR ngir nu mu gën a gaawee mu daje xool naka ak lan lay jël ci ndogal jëmale ci kàddu yi nga xam ni kat jàpp nañ nii seen waa ji di Moustapha Cissé Lo mu ngi yàqu deru parti bi te it di ñagasal xar kanamu Sénégal ci Afrique ak ci àdduna si ñuy fàttali ne ci biir commission de discipline boobee bokk na ci ña nga xam ni ñu ngi ca muy Abdoulaye Badji mbay Ndiaye Abdou Mbow Omar Gueye daw Daouda Diallo ak kii di Benoît Sambou mu mel ni kon mbir yi ëpp na ndax kat président Macky Sall njiitu APR moom nag yàgg na di taxaw di wax kat kon coow yi am ci biir parti ak yenn xulo yi na dakk ba tax kon bii yoon bëgg na loole am gannaaw kon ba ñu convoqué li nga xam mooy commission de discipline bu alliance pour la république nga xam ni nag du guleet sax muy sëgg ci mbir yu ni mel ndax dinañuy fàttaliku ni coow yi ñu mel amoon na sax ci diggante kii te Moustapha Cissé ak Yaxam mbay muy doon kon ay kàddu yoo xam ni kat ak commission bi dajeem bi mu nar a def yaakaar kon mënees am ni dina am ay ndogal yu tar yoo xam dinañ ko jël jëmale ko ci Moustapha Cissé ndax kat bu ñu fàttalikoo commission boobee ci janvier atum 2020 bi jëloon na ndogal dàq kon kii di Moustapha Diakhaté ci parti bi di APR gannaaw ba ki fi nekkoon chef de cabinet bu président Macky Sall jëlee woon kon ndogal ne kat dina taxawal ab courant ci biir APR tuddee ko li nga xam ni kat moom mooy manko taxawu suñu APR. dañuy des ba léegi ci coowal Moustapha Cissé Lo euh, xibaar jip ni euh, tekki na ndombal tànkam euh, ci vice présidence bu assemblée nationale ci ndombu tànk yi nga xam ne amoon na ko ci instance yu APR yi moom tamit tekki na ndombo tànk yooyu loolu nag mi ngi jip ci saaga yi nga xamee ni moo feeñ ci ay ojo yoo xamee ni ci moomu la jóge beneen problème tamit fekk ko ci muy mbirum yoon nga xamee ni mi ngi ko seq ak ay euh, Aymérou Gningue nekk euh, président euh, groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar dañ ci ànd ak Pape ñi gannaaw saaga yu ñaaw yi nga xam ne yëkkati na teg ko ci kaw Farba Ngom ak Yaxam Mbaye Moustapha Cissé Lo nag ba ñu génnee yooyu la audio nee na moom dafay démissionné ci fi nga xam ne moo nekk poste vice président bu assemblée nationale ci xibaar yu ñu jot moom jot naa bind li nga xam ne moo nekk lettre démission dina ko jébbal ki nga xam ne moo nekk président bu assemblée nationale di Moustapha Niass ci altine bi Moustapha Cissé Lo sax nee na bépp ndombal tànk boo xam ne am na ko ci seen parti bi di APR dina ko teggi nekk tamit membre fondateur lu weesu saaga yu ñaaw yooyu ki nekkoon président bu parlement bu CEDEAO moom nag wax na ci wàllu lii nga xam ne moo nekk jiw yi ñenn ci personnalité ci réew mi ak seen i ñaale leen leen ci jox lu bëree bëri looloo tax sax ki nga xam ne moo nekk président bu groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar ay meeru ñing ne dina ko yóbbu fi mbaxane doone benn mu dëggal nag li nga xam ne moom lay wax mu indi ci ay firndeel wala déet coow li nu mel nag di dëggal ne jafe bu métti moo am ci biir parti au pouvoir bi saa su ne même personnalité la ñuy nemmeeku ñuy xarabante ka saagante waaye Moustapha Cissé Lo la ñuy gën a ràññee ci li nu mel gannaaw bu mu songee Abdoulaye Diouf Sarr ñeneen ci parti bi nag dal na ci seen kaw ni saaga yi ñaawee loolu wone nag een bu métti bi nga xam ne am na seen diggante naka noonu far ba Ngom ak Yaxam mbay nag ñoom dañoo jiñ na Moustapha Cissé dafa luubal koppar ci benn marché boo xam ne dañ koo jagleloon lu jëm ci wàllu gerte wi ak saaga yu ñaaw yi ak xibaar yi nga xam ne moom lañ ci génnee yaakaar nañ ne procureur de la république dina jël mbir yi bu ko defee sénégalais yi ñu mun leen gindi ci affaire bi nu mel wala dañuy euh, des ci wàllu yoon Pape Fara Gning ak SYTJUST bi nga xamee ni dinañu tàmbali seen i ñeenteelu euh, semaine de grève syndicat bi nag di naqarlu doxalin bi nga xamee ni moom la seen ministre bi am ak euh, ñoom ñoom dañoo jàpp ni ginnaaw biñ ko ŋàññee fan yi daanaka ministre bi dafa dox ci tànk fayu ba loolu daal tax nañu tàmbaliwaat euh, seen grève boobu te nee nañu duñ ko bàyyi tànk amuñu ci satisfaction dañ ci teewlu ki nga xamee ni moom mooy secrétaire général syndicat bi di maître Boun Aya Malick Diop. liggéeykatu ëttu attekaay yi altine bii ñuy dëgmal muy juróom-benn fan ci weeru juillet deux mille vingt dañuy tàmbale benn grève ñetti fan te duñ koy wéyal ba am matérialisation. réforme yi nga xam ne mooy faj suñuy revendication ah bii nag mooy sunu ñeenteelu semaine ñuy grève te bu ko jaree semaine prochaine dañuy wéyalaat grève bi di ko topp noonu ba am ci ndam service de la justice bi jaxasoo na ba nga xam ne sénégalais yi ñëw ëttu attekaay yi sonn nañu lool loolu nag day firndeel ne lii ñu taxaw di ko wut taxaw nañ ci tem pour jàmmaarloo ministre de la justice mi nga xam ne moom ta ñu bëgg yàqal li nga xam ne am nañ ko ko ay ak yi ci xeex yi weesu loolu nag li ko waral mooy kontaanul ci xaxar yi ñu koy xaxar waaye nag nga xam ne nañ ko eggalee xaxar yooyu ba am li ñu bëgg ndaxte kat moom moo bloqué suñu revendication te lu mu ko jaral rek jaral nañu ko ëpp. dañuy wax euh, ci euh, ay gune yi nga xam ne ñoo nekk ca quartier Dar es Salaam bu Sébikotane ñoom nag daal dañoo jàpp ni nguuru Sénégal daf leen euh, fàtte bokk na ci sax ci séddale bi nga xam ne amoon na ko ci ndimbal gi ci ceeb beeg yooyu kenn boolewu leen ci dañ ci teewlu seenu jàmm. nekk ci diggante lii di région bu Ndakaar ak bu Thiès lii di commune bu Sébikotane la fa manque bëri na lool suñu sëkkandikoo ci ndaw yi bokk ci lii di association sportive et culturelle bu quartier bii di Daaru Salaam yooyu ndaw xam le ne amuñu barabu fajukaay rawatina ab lycée wala sax ab stade bu ndaw ñi mën di yëngoo. yi ay xale rek ñoom ñoo fi dëkk euh, ci matière sport bi xam ñoo ngi ciy yëngatu par exemple tey euh, loolu moom dañ koy lancer fii sax pour que président de la jàppale nañ ko jàppale nañ ko si li ñu mais nag. Euh, Darou Salam fii Sébikotane soxla na stade pour football pour jeunesse bi fi nekk parce que tamit jeunesse bu sportif ñoom ñoo fi ne soxla nañ loolu trop pour que ndimbal bu jëm si ci ci côté boobu. hôpital aussi tamit soxla nañ ko parce que euh, dëkk boo xamante ni plus de euh, trente mille cinquante mille du moins tu vois ah habitants ñoo fi ne te buñ la nee fii hôpital amu fi. ci seen programme citoyen yooyu ndaw fexe nag ba taxawu askan wi nga xam ne nii jotawuñu ci ndimbal lii nguur gi génne jëm rek ci jàppale ñi seen loxo jotul seen ginnaaw. Euh, soo calculé woon tey valeur bi nga xam ne defoon nañ ko noonu c'est autour de deux millions cinq cent quartier bi nag ñoom ñoo ko def bonne volonté tey et tout ça quoi ñoom ñoo nekk c'est pas seulement euh, le football mais ñi nekk ci quartier bi yëpp. Euh, ñoom ñoo ànd boole seen doole pour xeex pour jàppale l'état ci kii bi parce que état bi aussi tamit mënul def lépp mu doon dimbal loo xam ne lii nag ñooñ rafetlu nañ ko bu baax xam le ne nag lii di nguur gi mënta def lépp ca geneen wàll ñi ngi ñaan municipalité bi nag mu gën a gunge yooyu ndaw xam ni sax am nañ ab équipe de football ci lii di troisième division bu championnat national. ñu jeexale ko ci euh, riverain yu baie de Hann ñoom nag euh, dañoo jóg. ci seen i coobare ni dañuy euh, defar environnement bi seen cadre de vie euh, ndaxte bee bi moom euh, daanaka xar kanamam doy na waar loolu loolu nag ñu ngi ko amal démb ci dibeer gi ci teewaayu sunu reporter yi di Cheikh Diop ak Ahmadou Ba. nekk juróom benneelu yoon ñuy amal opération de nettoiement ci bile bërëb ñu nekk fii ci bu aan ay junniy ndaw nag daal di fiy daje li waral lu ni mel daal di coppi xar kanamu file. fi ay koko. fii ñu nekk démb kenn mënu fi woon taxaw ñu fexe ba xale yi am fu ñu fowee ñu dem ci canal 6 bi nga xam ne mi ngi jógee Colobane guddee ñeenti kilomètres lu doon mbalit ak pën ak huile doon fa jaar di dem géej ñu fexe ba canal 6 boobu ñu def fa tame buy téye mbalit mi ba mbalit mi dootul yegg géej loolu ñu def nag ñu ñoo cotiser defal ko suñu bopp ñu xalaat ni suñuy mbokk yi nekk Soumbédioune mën nañ ko def ñu nekk Ngor mën nañ ko def ñu nekk Tëngéej mën nañ ko def parce que mbalit waratul jaar en 2020 ci canal à ciel ouvert dem géej ba kenn dootu ko mën a jël. liggéeyuk dépollution bu Bédéane daañ ko door ci weer bu septembre bi ñu dëgmal bu ñu sukkandikoo ci Mbàkke Seck li lay itam nekk ab bëgg-bëgg bu yàgg. loolu mun nañ ci am li ñuy woowee économie circulaire mun nañ ci am li ñuy woowee développement durable parce que géej gi mën na génne lu mu bon bon. deux cent emplois permanents. lépp lu soxal caxat caxate tefes gi nag doon na loo xamante ni waxtaanee nañ ko ci bile activité ba tax itam l' association riveraine de la baie de di ñaawlu lu ni mel. li yoon wax mooy diggante géej gi ak kër yi war na am cent mètres ñu am ci suñu constitution suñu euh, euh, charte bu magu réew mi ñu ni littoral bi ñëpp ko bokk tefes gi ñëpp ko bokk. amul ma sàmba amul ma demba bu war a mën a ñëw xañ nit ñi ba duñu gis géej te duñ fa dem te loolu bari na fi boo demee Saly géej gaa ngi avancé soo demee Malika yëmbal ñi ngay dagg garab yi soo demee Saint-Louis avancé de la mu ngi leen di menacé buñ ci tegee di dëkk ci booru géej gi nag musiba day am. alam gi doon lu am solo ci dundunguk doomi aadama loolooy waral ndaw yi li bokk ci wile kuréel taxaw temb ngi rek dal di coppi xar kanamu benn voilà merci euh, Cheikh Diop euh, Chérif comme ni ñu ko doon waxee sànq rek euh, je pense que initiative bi euh, lu ñuy rafetlu la ay askan wu jóg ngir euh, raxas maanaam wala bale béeda aan bi nga xamee ni daanaka xar kanam bi doy na waar te comme ni ñu ko waxee sànq nekk na bërëb boo xamee ni su jaaree si yoon rek bërëb bu mucc ayib. bu mucc ayib béeda aan quand même ngëneel la parce que boo xoolee Sénégal moom yàlla dafa ñoo may géej déjà te bu fekkante ne may ñu ko may ñu yoo xamante ne jege nañ géej gi. je pense que BDAN quand même day loo xamante ni doy waar la ci wàllu écologie ndax entreprise yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca wet ga ñoo fay sànni li nga xamante ne moom mooy ay déchets ba nga xamante ne yàq na daanaka géej ga nappkat yi am na conséquence boo xam ne am na fa population yi également ñoom it am nañ ci responsabilité parce que mbalit maag la fay salte ñoom ñoo ko def ndax BDAN boo xoolee li ko commencé port jàpp ba Bargny lu ci bëri demoon na foofu concerne ay population looloo tax tamit euh, projet de dépollution bi également lu yàgg la une vingtaine d'années ngi nii nit ñi bëggoon nañ koo def mais amoon na déjà benn bi ay réticence ci population yi parce que ñu ci bëri dañoo jàppoon ni suñ ko defee la nga xamante ni moom la ñu rejeté encore mën naa dugg ci quartier yi ba taxoon kon mu amoon ay jafe-jafe yu bari mais loolu mujjoon nañ ko régler ba population yi nga xam ne ñoo dëkk ci wet ga ñoom it régler ko beneen mooy contentieux ci wàllu justice boo xamante ne amoon na ci marché yi ban entreprise moo koy gagné ngir dépolluer et cetera mais je pense que dernièrement cour suprême mujj na tranché li nga xamante ne moom mooy débat ba joxe nañ xam nañ entreprise bi nga xam ne moom moo ko war a defar li ci def mooy demoon nañ ba tubaab bi muy union européenne ay Pays-Bas menacé woon sax retiré xaalis parce que yàggoon na yàgg goo xamante ne jafe-jafe yooyu moom moo ko war je pense que il est heureux de voir ay initiative yi nga xamante ni activiste ci wàllu écologie ñoom Mbacké Seck di ko def muy loo xamante dem nañ ba population yeewu ni mbiram environnement am na parce que fii voyagé nañ fi dem fu mel ni Maroc xool li nga xamante ni dëkk yi nga xamante ni jege nañ géej ak tamit taar bi nga xamante taaru na ko Euh, ñoom demoon nañ yóbbu population yi waa ONAS yóbbu leen barke mi euh, teew ci plate bi xam na ci dara donc muy loo xamante ni yàgg nañ koo def mais mm. malheureusement mujjul am donc euh, l' espoir maintenant est permis avec éveil des consciences ci population yi mm. mais également la nga xamante ni mooy entreprise bi nga xamante moom ko war a def en tout cas euh, situation de dégradation bi ëpp na euh, ëpp na ay loxo euh, gis nañu li doon génn ndax lu ko waral moom mooy euh, yi li yuy jóge ci yi nga xam ne dañ koy sànni ci géej gi géej gi di ko sànniwaat ci tefes gi lu ci mel ni mbalit mi ñuy jëfandikoo ci kër yi ndox yi génnee ci foos yi wala sax yi nga xam ne dañ fay génnee ci usines yi mooy déchets industriels yi yooyu yëpp nag doon na faagaagal bu baax askan wi kon bu ñu gisee responsabilité wala engagement citoyen citoyen bu mel ni euh, du def lu dul di ko rafetlu rafetlu itam naka noonu euh, teewaayu Barka Ba euh, min ngeen ko ci télévision Futur Média Barka ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay soxna Fatou. mu ngoog ci kanam tuuti lañ fas yéene ànd ak moom ci chronique bi laata loolu app dañuy dellu ndax fekki fa Ousseynou Diop jël ko en visio sànq nag gis ngeen reportage bu am solo bi Ousseynou def defal ñu situation bi foofu ca diwaanu Ndar Géej may fàttali rek ne mbas mi mi ngi duggoon fi ci Sénégal ñaari fan mars ndax. nag jël na ci wàllam ci ñaar fukk ak ñeent ci ay doomu aadama kenn ñàkk ca bakkanam fukk ak juróom yi wér juróom-ñett yi ne ci am paj délégation bu ministère de la santé ñoo fa demoon amal fa ab tukkib nemmeeku Ousseynou Diop Ousseynou yeewu nga. Eh, Fatou xaaral ma reformuler waat un peu la la question xam nga boo taxawee jàkkaarloog moom ma naan nga yeewu yeewu nga laaj la yu ñu faral di <laughs> def Ousseynou maa ngi lay nuyu euh, di la dalal ci télévision Futur Média yaa ngi jàkkaarloo ak téléspectateurs yi jaajëfal la itam ci liggéey bu rafet bi ngay def naka doonu sunu correspondant yi nekk ci réew mi. Euh, Fatou euh, dégg bi moo neexal moo neexul lool. waaye mm-hmm. xam naa ne man maa lay dégg. comme ni mu la ko waxee rek moo jëm ci wàllu reportage bi ñu defoon léegi ci li nga xamante moo jëm ci mbir waa ci Covid 19 bi ndaxte xam ngeen ni ci diwaan Ndar géej defal naa léegi benn xayma xayma bi nag li ñu ci doon waxtaan jëm na ci wàllu li nga xamante ni mooy Ndar géej ñu toll ci wàllu mbas mi xam ngeen ni amoon nañ ñaar fukk ak ñeenti nit ñoo xamante ni amoon nañ ci euh, lii di feebaru coronavirus bi ba mbir mi tàmbalee léegi mm. kenn mu jëm ci ñàkk bakkanam fukk ak juróom nag euh, daal cay euh, nekk ñi nga xamante ni ñoom ñoo daal di wér ci lu jëm ci wàllu itam jàppal ni euh, am na juróom-ñett yoo xamante ni ba léegi ñu ngi sous traitement ci li nga xamante ni mooy ci hôpital euh, régional bu Ndar mm-hmm. euh, ci lu jëm ci wàllu woowu nag xam ngeen ni démb rek am na benn koo xamante ni ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru juin ci atum 2020 bi fële nga xamante ni mooy ca Rosso Sénégal dafa ñëwoon ndaxte xam nga ni frontière bi leeg dañ koy ubbi di ko tëj euh, loolu doonoon loo xamante ni day permettre ñenn ñi nga xamante ni dañu nekk ci yenn gox yi nekk ci Mauritanie ngir ñu a ñëw mm-hmm. bu ñu xoolee ci bi ba léegi junni la ak euh, ñeent téeméer ak juróom ñeent fukk benn waaye nag leneen loo xamante ni gis nañ ko ci mooy dafa am benn ci doomu Sénégal yoo xamante ni dañ ko testé woon laataa muy jëm si ay këram Mm-hmm. moom bi mu waxee ni sax dafa ne dagg Dagana la jëm ni foofu lay daal di dem euh, bu fa demee nag fa lañ koy euh, fekk daal au cas où euh, gis nañ feebar bi ci moom bu ñu demee nag ba gis ko ba xam ni feebar bi am na ci moom dañ ko woo téléphone xamal ko ni yow feebar bi euh, mi ngi ci boobu dañ koy gëj a gis mu doon loo xamante ni lu doy waar la ñu nag ñaar fukki koy mujjee daal di teg loxo moom nag dem na ca dem na ci Richard Toll dem na ca Rosso loolu lépp nag yëg na ni feebar bi moom hmm. dem na itam ci yeneen gox goxaat yi fu ko neex daal doon na fa dem mu mel na kon nit ñi lekk saa day mel na lu ci jëm ci wàllu liggéey bi dañ koy xaw a fàtte maanaam euh, fexe ba boo amee feebar bi nga dem ci centre yi nga xamante ni ñoom ñoo habilité ngir mën la saytu bi ñu xoolee itam lu jëm ci contact yi nga xamante ni waa jooju am na ko ko toll na ci juróom fukki nit yoo xamante ni laal nag ñoom tey nag loolu indi na problème ci diwaanu Ndar Géej ndaxte yow bu ñu la testé nii da nga am feebaru coronavirus bi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin ñu wax la ko euh, nga toog ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ba cinq juillet ñu soog lay gis te loolu lépp nag fekk na ferme ci yow kon mën nañ jàpp ni day am tuuti jafe-jafe ci lu jëm ci wàllu li nga xamante ni mooy askan bi moo tax jamono ji ndar moom comme ni la ko doon waxee Euh, yàlla ñu yàlla aar rek ndaxte lu jëm ci wàllu feebar bi moom euh, commencé na fi dugg ndaxte jamono ji juróom-ñett ñu ngi ci sous traitement ci bi xam naa faatu la ñu déggantewul bu baax waaye nag leen loo xamante ni mën nañ ci yokk mooy wàllu plage bi euh, faatu plage bu hydrobase jamono ji dafa mel ne tulle ak màlle dafa mel ne tulle ak màlle kenn xamatul waaw kenn xamatul looy def kenn xamatul looy wax xale yi dañuy ñëw ànd fa de ay milliers des milliers et des milliers de jeunes yoo xamante ni dañuy dem ci plage ba di fa fo te amul benn mesure boo xamante ni tey mesure concrète la man damay dem sax ma toog ma mujjee ma jàpp ni est-ce que du kon feebar bi ci ndar gi gars yi dañu ko maîtriser wala boog démission moo am. Euh, Ousseynou Diop euh, yaakaar naa ni euh, foofu nga daaneele am na solo aussi ñu ci def rebondissement yaa ngi koy wax muy hydro hydrobase ku dem ndar géej xam ko buñ ko masaan tudd rek xel dem ci nag ci mois de juillet yaa ngi ne ndaw yi fi mu ne nii ko ku ne yaa ngay yëkkati di dem di wutali foofu nga xamante ne si moom mooy hydrobase est-ce que itam d'une part jur yi ñu ngi def taxaw bi responsabilité individuelle bi ñu doon wax sànq ak collectif dafay ñëwaat ba tey ñu gën a euh, sàmm xale yi gën a waxtaan ak ñoom waaye itam ñu xam ne mbas mi mi ngi fii te itam comme on on apprend à vivre avec Ousseynou mu mel ni euh, dégg-dégg bi dafa xaw a am tuuti jafe-jafe en tout cas euh, l'essentiel a été dit ñu koy sant bu baax di ko gërëm euh, Cheikh Tidiane xam nga li Ousseynou di wax sànq moom mooy dellu siwaat ci li ñu doon wax ci plage yi maa ngi koy tooj naan ko mbaa yeew nga ba pare may delluwaat xam nga ñun Sénégal dañoo taamu fekk la nga nga nga nga toog ñu ndax yaa ngi toog wax <laughs> mbaa yeew nga mais comme léegi xale yi dañ cee xaw a mus tuuti boo ne loon yaa ngi toog mën nga mën nga mën nga jóg toog tamit dox te fekk yeewu woon c'est ça <laughs> c'est ça aussi comme yeew dafa bëri ay kon baax na parce que damay bañ xale yi TikTok ma ñu ne ma yow nga mu ne ma déedéet yow ma maa ngi nelaw en tout cas euh, li mu wax am na solo bu baax a baax nag euh, Cheikh Tidiane muy lu jëm ci euh, plage yi c'est important ñu def ci taxaw seetlu parce que jamonoy tàngaay la ñu nekk yenn xale yi ñu ngi dem plage interdite sa xale yi dañ fay dem xale bu ñu wër tey 14 heures le lendemain ñu publier photo am ne la il a été retrouvé malheureusement mort noyé muy ay mbir yoo xam ne chaque année aussi day dellu si waat day fi mel ne wax ji sax jariñatul dara aussi. non non mais plage yi am na réew yoo xam ni euh, bi nga xam ne dañoo woyofal seen restriction yi. Mhm. dañoo dellu tëjaat plage yi. parce que ci jamonoy été la ñu nekk mhm. dafa tàng c'est vrai marée humaine moo fay am fii mhm. Sénégal loolu lañ fi nemmeeku xale yi lu leen neex lañ ni ko Ousseynou waxee démb tamit noonu lañ ko nemmeekoo fii et pense que autorités yi tamit euh, c' est vrai que woyofal nañu affaire yi mais. Mhm. tamit foog ñu def teg teg ay garde fou quand même. c' mhm. vrai tàng na ñi ñi ñëpp bëgg nañu fexlu ji. Mhm. mais quand même soo gisee tout ce monde là ci plage te kenn du ci sol masque. je pense que c'est c'est c'est une zone rêvée pour le virus pour euh, s'épanouir. waaw euh, Barka Chérif ñu ngi doon wax sànq lu jëm ci mbas bi ak tolluwaay bi mais gis nañu aussi ne loolu olof naan bayliku daf cee mujjee am Chérif. waaw Fatick comme ni nga ko waxee bàyyi na moom chaque fois dañ koy répété constat la boo xamante ni c' général. Mm-hmm. Euh, parce que quand euh, day loo xamante ni xëy na les gens n' étaient pas habitués surtout di sol masque surtout encore une fois waxoon naa ko wàllu discipline day baax loo xamante ni. Mm-hmm. dafay baax parce que ñi ko réussir ci wàll woowu mooy peut-être les asiatiques ak Chine nga xamante ni fa la mbir jóge parce que foofu moom. ku ne xam na ne mi doxee doo ñoom amut ay mbiram démocratique ak affaire liberté benn njiit la nam bu ne nii ñëpp def lan wax sinon boo ko defut moom fa ngay sànkoo ba faaw donc je pense que Sénégal nag eggun foofu et puis oh, les gens n'ont pas en temps normal amun sax moyen pour contrôler les plages à fortiori quand même ñu nekk ci jamono ji nga xamante ni bàyyi nañ affaire yi comme ni nga waxee parce que takk der yi quand ñoom it mënuñoo nekk fépp comme ni nga ko waxee li am solo rek mooy nit ñu ànd ak responsabilité je pense que dem place mun mënee su koo tere parce que comme espace libre la mais il faut que rek nit ñu organiser wu ko euh, parce que tamit euh, day loo xamante ni comme ni nga ko waxee dëkk yi dëkk dëkkuwaay xat na surtout fu mel ni Dakar yi gis nga ni demee am na ci barab yoo xamante ni nit ñi quand même bañ concentration mun na faa ñàkk mais li am solo rek mooy mesure barrière ñu respecté ko bokk na ci takk masque yi mais également cet gi nga xamante ni également mënul ñàkk su ko defee kon euh, xëy na virus bi mën na fee gaaw a jóge parce que fi yoon bi ñu toll te day tax sax ñu laaj baat ko mi nga xamante ni quand même nit ñi ko gis moom ci tugal la nekkoon ba mbas mi doo ko doo ko tàmbali mu tagoon fa ah voilà non surtout non surtout surtout que dafa ñam loo xamee ni mm. est-ce que loolu imaginer na ni mën na am Sénégal mm. vécu le confinement au vrai sens du terme en Europe ku nekk xam na <laughs> gis na Europe ni ko mbas mi def Espagne itam rawatina baax mm. jërëjëf li ma mën a wax ci mbas mi ak euh, la petite expérience bi mu ci dund ci Espagne mm-hmm. mooy képp kuy xeeb feebar bi wala euh, di ko néewal doole wala naan euh, feebar bi amul ak wala gars yi dañuy wax da nga da nga ko dundul mm-hmm. comme ñenn ñu nuñ ko dundee parce que soo nekkee ci dëkk boo xam ne dañuy dem di am 700 morts par jour 800 morts ñu dund ko pendant presque lu ëpp un mois balaa muy décliner di wàccaat Euh, nga xam ne euh, feebar bi du mm-hmm. du caaxaan. Mm-hmm. nit ñi répété dañ ko répété dañ ko mais lu ñuy dégg fii ay 100 morts mooy li nga xam ne bi mbas mi di waaj a jeex Espagne ñoom bi ñu amee 100 dañ doon presque tàccu. jubilé ndax euh, nombre de moor yi ak cas yi nu mu nu woon foofu. Mm-hmm. donte dëkk yooyu noonu nu ñu amee doole Espagne bokk na ci dëkk yu gën a baax système sanitaire ci monde bi. mais ñoom dañu meloon ni ku néew doole soo leen comparé ak dëkk bu mel ni Allemagne mu ëppaat leen doole. ci ci ci gérer Covid bi même ñoom dañu dem ba seen système sanitaire attanul woon flux bu nekk euh, ci hôpitaux yi. Mm-hmm. donc soo nekkee ci dëkk yu mel noonu aussi développé nga gis ne ñoom dañu dem ba tiit ba ba ba jaaxle. France daal di jël ay malade di ko évacuer euh, Allemagne. parce que Allemagne Allemagne ñoo leen ëpp ay lii ñoo leen. France man laa comparé euh, bi ma nekkee Espagne laa comparé même le, niveau de de sous-développement de la France soo ko comparé ak dëkk bu mel ni Allemagne. Mm-hmm. mais dëkk yooyu ñoo am problème yooyu donc ñun suñu dëkk yi. Mm-hmm. dañ doon wax ñun ñun ñu fa nekkoon dañ doon wax yàlla nan la ñu suturaalee ak ban miracle la ñu am. bëgg suñu kaay yi explosé wul nit ñi après di ci jox ay explication peut-être jeunesse bi la peut-être problème de climat la peut-être peut-être mais ñun ñu nekkoon foofu li ñu doon ragal mooy. mbas mi xejul xejul ci Afrique xejul ci ci Sénégal yàlla defal ñu sutura ba léegi nii nombre de morts yi. Mhm. Euh, jéggiwul dayoo. ni ñu koy sante yàlla mais soo ñëwee nga gis nit ñi bàyyeeku wala nit ñi yaakaar ne affaire bi caaxaan la euh, da ngay jaaxle ba doo ci doo ci bëgg wax lu bëri parce que da nga naan ñii dañu dañu inconscient. Mhm. su dee dëkk yooyu noonu ak seen niveau de technologie ba pare euh, Espagne. affaire bi wàññeeku na mais démb dañoo commencé war reconfiner yenn zones yi. Ah, deuxième vague dafa. deuxième vague dafa commencé ñëw. Madagascar Chine Chine bi yaakaaroon ne réglé na problème bi. mu ngi reconfiné wu sa à dire que. dëkk yu bëri bëri bëri bëri yaakaaroon na sax xeex nañ mbas mi ñu ngi dellu si waat di daal di jëlaat ay mesures. donc ñun nan la ñu war a mën doxalee ñun. ba yaakaar ne mbas mi caaxaan la wala nit ñi def euh, relâchement général au niveau des population ce niveau d' inconscience lay dafa lay jaaxal ba tu es tu es baax c' est important li nga li nga wax di tey itam lu mat a bàyyi xel la di fàttali rek ni ngeen ko gisee xam ngeen ne euh, temps bi euh, bi ñu Espagne nekkee en confinement boobu Barka mi ngi woon Espagne doon fa def ay ay reportage euh, li mu wax na gis na Barka gis na ay structures sanitaires yoo xam dañoo débordé. Mm. mais ñun loolu mi ngi ñuy parce que. réanimation réanimation bi ñu waxaat ko suñu demee ba. nombre de maladies doublées nombre de lits disponibles yi mhm. veut dire que ils vont commencer à choisir mhm. ils vont choisir des patients yoo xam ne la ñuy yóbbu foofu am ñoo xam ne dañ leen di éliminer d'office mhm. pour pour vous donner benn exemple dafa am ay affaires yoo xam ne dañ ci war a taxaw seetlu euh, dëkk bu mel ni France su demee bay ñaan wàllu un pays comme Cuba Cuba yi dañu envoyé ay médecins Italie d'abord mais France dañoo toog ci seen orgueil parce que comme système politique yi bokkul et pendant longtemps Cuba dañ ko xawoon isolé mm-hmm. dañu dem ñaani ñoom wallu ay cubain pour ñu ñëw ñu jàppale leen ci ci mbas mi surtout dans les euh, territoires d'outre-mer ay médecins cubains donc loolu rek euh, ay misaal yu ndaw la yu lay woon su dëkk yooyu doy na comparaison parce que tout le problème euh, mbas mi lu ci gën a garaaw mm-hmm. lu Cheikh doon junj léegi mooy engorgement hôpitaux yi cest un nombre yu ñëwandoo def vague daal di ñëw loolu amul benn structure sanitaire bu ko bu ko attan mhm. Espagne dañu demoon ba créer ay morgue à ciel ouvert ay ay ay gymnase yu ñu jëloon daal di yokk ay ay lii ñun loolu yàlla bu mu fi am. parce que attanuñ ko. suñu système mhm. sanitaire mun attanu ko. Mhm. Mhm. donc euh, c' est important barka ba ñu sant ko bu baax di ko gërëm dafay di baax nag ñu ibbi ay fenêtre waxtaan ci actualité mbas bi ak tolluwaay bi euh, xam ngeen ne euh, sonal na àddina wërngal këpp Sénégal yi tam mu jot wàllam niñ koy waxee benn bakkan bu rot rek dafa ëpp waxuma la ak nag ñu naan téeméer ak fanweer ak ñett ci li ñu xamagum ndax itam am na ñu nekk réanimation ñu leen di ñaanal borom bi fëgg seen bopp di fàttali. encore une fois mesure barrières yi ni ko professeur Massamba Gueye di waxee ñàkk sa bopp ñàkk ñi ngay jëflanteel léegi léegi dañuy desandi ak Barka Ba euh, ñu waxtaanee chronique bi. conditions. Euh, du jour euh, altine juróom-benn fan ci weeru juillet Barka. waaw. ñu ngi nuyu barka bu baax Fatick comme ni nga ko na noonu la parce que mm-hmm. quand même ñi ngi ci altina nekk tamit euh, gis ni Sénégal quand même euh, ci weekend bi am na loo xam ne ni xew na fi mm-hmm. muy ay kàddu yoo xamante ni ëpp naa wax ci nit di ko dégg donc euh, ñu ne dafa génn ci gam gémmiñu ki nga xamante moom moo nekkoon vice président assemblée nationale mm-hmm. ba léegi moo ko nekk tant que démission bi kon nee na da koy déposé muy Moustapha Cissé loolu la ca xew xam nañ ko parti ba mu bokk di appel wàllu yar gi ngir ñu càmbar ay mbiram moom moo taxoon ñu bëggoon a waxtaanee loolu lépp li tax nag mooy mhm. ñoom ñoo ñu jiite comme ñoo jiite Sénégal nag muy parti au pouvoir nga xamante ne bi ñu ñëwee ci nguur geeg léegi juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti at la mhm. président Macky Sall jiite ko ñu yàgg faa dégg ay coow moom moo taxoon quand même teewaayu barke fii ngir ñu daal di waxtaanee lu ne mel première question bi Barka moom mooy justement dernier développement yi ak li nga xamante ni mooy communiqué APR Seydou Gueye porte parole bi signé ko ne léegi moom Moustapha Cissé Lo comité commission discipline bi dañoo bëgg mu càmbar ay mbiram ban analyse nga ci mën a. waaw euh, je pense avant ñuy egg ci communiqué bi lu ñu war a posé wu mooy déjà nan lañ def ba. ba egg si fii nii. lan moo ko jur dafa dans cause yi euh, bëri nañ et communiqué bi ngay wax noonu ñoom Seydou Gueye bu ñu génnee moom mooy le minimum bi nga xam ne ñu ngi ko doon xaar ci parti bi mhm. au moins ñu réagir parce que fu ñu toll nii ils n'ont pas le choix jusque là euh, APR problème yu mel ni su amoon dañ ko doon nëpp nëppal mhm. euh, di espérer coow li fayal boppam après mu am suba beneen événement bu xew benn fait divers wala mhm. leneen ba nit ñi fàtte ko defe naa nag nëpp nëppal boobu noonu ak manque d'organisation manque de discipline bu ñu nemmeeku ci parti bi moom moo jur conséquence yi nii ba mu nekk peut-être la goutte d'eau de trop mm-hmm. mu egg ci dérapage boo xam ne gëñ nañoo gis giraawal li bu bu toll nii bu yëngalee di réew mm-hmm. parce que mun nañ ko presque assimiler ak trouble à l'ordre public mm-hmm. notion de trouble à l'ordre public dañ koy wax souvent pour di jàpp ay activistes wala ay nit euh, suñu defee naka sudul noonu waaye euh, giraawal li bu toll nii amul trouble à l'ordre public bu gën a grave non seulement trouble à l'ordre public la mais trouble à la bien bienséance la à la morale euh, à à l'éducation des enfants yi c'est-à-dire que foo foo natt scandale bi weesu na ko maintenant pour man euh, ñëpp condamné nañ propos Moustapha Cissé yi man koy kondane comme comme tout le monde en tant que citoyen d'abord euh, en tant que peut-être am ay doom et cetera mm-hmm. mais mënuñu condamné Moustapha Cissé Lo rek Mm-hmm. te taxawuñu xool lan moo jur euh, mbir mi ba mu egg fu Moustapha ci Lo mm-hmm. egg malheureusement ci ci dérapage bi. lu ko yor yow mm-hmm. selon bëri na ah pour man li lu indi euh, problème Moustapha Cissé selo yi euh, lu ci njëkk mooy ñàkk discipline bu ñu doon wax léegi bu am ci biir APR ak nu APR soso ak ñoom nu ñu ñàkkee volontairement structurer seen parti et donc premier responsable lu xew. président Macky Sall lay doon. parce que moom mooy président wu parti bi APR qui une association privée mais ñoom aussi <clears throat> ñoom la yàlla def ñoom ñoo yore nguur gi. Mhm. donc su fekkee parti au pouvoir euh, ay responsable am ñoom ñooy donné wu en spectacle. responsabilité bi d'abord seen biir lañ koy situer. Mhm. et parti bi ki ko fondé moom mooy premier responsable moral bi. Mhm. moom moo war a euh, sàmm njabootam. moom moo war a am style de management boo xam ne. dina tax euh, partem nit ñi euh, donte peut-être parti mënul ñàkk ay ay ay contradiction mënul ñàkk xëccoo sax loolu ci ci ci politique la bokk mm-hmm. waaye mu egg ci yenn niveau extrême yi ba nga xam ne comme ni mu koy waxee day troubler l'ordre public mm. troubler même peut-être la marché du pays euh, président bi war na war na xoolaat partem nu muy doxee war na xoolaat moom ci boppam nan la manager ay ay nitam mais est-ce ci benn nit bi rek mën nañ ci je sais pas gagné parti bi parce que le gars aussi euh, souvent dañ koy dañuy faral di wax ni c'est un élément hors du commun comme ni ko euh, PDS amee woon ci euh, jamono mm. waa ji ni mu nekkee te dañ ko ko ci bàyyee mm. mais est-ce que am na tamit ñeneen ñu mel ni moom ci biir parti bi loolu la Cheikh Tidiane problème bi mooy xëj na moom tey moom moo wax lu ëpp loo xam ne giraawaali la boo xam ne egg na fu niveau de de bassesse bi musu fa musu fa egg mais comme lu mu lay wax surtout dérapage la balaa muy faire déborder le le vase am na yeneen ak yeneen responsable yoo xam ne dañu doon génn ñoom tamit di def ay attaques. mais Barga xanaa ah. euh, li ñu wax rek dara daalu daalu ñu ci fekk donc dañuy wax. li ñuy wax ba bien sûr dafa dafa dafa mel ne ñoo xam ne dañ leen bàyyi. Mhm. comme dans une sorte de de jungle attaque réplique attaque réplique yooyu su amee. Mhm. Euh, mu mel ni kilifa gi. dafa taxaw du xeex euh, du àtte xeex wala day seetaan wala sox ñu yaakaar ne ñenn ñi dañ leen yónni pour ñu tontu ñenn ñi mais day dem ba nga xam ne euh, lu ñuy wax monter aux extrêmes euh, ku nekk day won keneen ki ne man la gën a sës comme ni ñu koy waxee man la wala maa la gën a woyu wala man maa la gën a maa la gën a ñaaw làmmiñ la gën a ñaaw làmmiñ alors que su fekkoon dès le départ premier dérapage yi arrêté nañ ko mu wax ak ñoom wala ci ci wala conseil de discipline parti bi daal leen di jël mu mu traduire leen ñu jël ay ay sanctions xëñ na doonuñu woon egg foofu parce que élément hors du commun yi dañoo dañoo bëri. ci biir mm-hmm. euh, parti bi mënuñoo wax Moustapha Cissé Lo kese la. Mm-hmm. xëñ na moom am na tempérament am egg na foo xam ne kenn egg bu fi parce que ak ak moyen de diffusion bi parce que loolu aussi euh, il faut ñu taxaw ci. conversation la woon boo xam ne xëñ na privé la. Mm-hmm. am na ku mu ko yónnee woon. am keneen wala ñeneen ñu ko jël ñu daal di ko wasaare ba ba ba Sénégal bi yëpp jot ci. mais est-ce que moom tamit bëgg ko woon wasaare parce que mi ngi naan wane jox leen live bi di di di di di lim. dëgg nañ dëgg dëgg dëgg nañ mais xëñ na peut-être xam nga ku wax ak mer di di yónnee lenn moom yaakaar naa ne lu mu lu mu. mën a ñaw lamin ñaw lamin xëy na su su su xalaatoon ne mbir mi dina egg fii wala Sénégal yëpp dina ci jot. su demee ba ba di ci tekki ay ndomb tànkam. voilà <laughs> boobu moom xalaat ne conséquences yi dina ko ci jural man dama jàpp ne sans excuser ses propos et que tout le monde condamne fermement parce que euh, euh, les propos de Moustapha Cissé Lo kenn mënu leen. Hmm. trouver l'excuse. Hmm. amul amul excuse amul ay compréhension mënuñoo wax ne montage la mënuñoo wax lii moom la moo ko. Euh, justement Barka ci tekki ndomb tànk bi. Hmm. est-ce que yaakaar nga ni ko waa ji daf ko def ci coobare boppam wala dañoo wiñaar loxoom ci ginnaaw parce que tout de suite après. bi xibaar boobu génnee la gis tamit que euh, jiitu réew mi. Euh, jox na ordre xaw ma partem ngir ñu saisir conseil euh, de discipline. bon xëy na comme xam Moustapha Cissé Lo tamit c'est un homme politique. Mm-hmm. xëy na expérience politique am may na ko mu xam ne coow li nu mu lëmbee réew mi ak giraawaale bu mu bu mu créé. xëñ na moom sax mu mu jiitu leen politiquement ci daal di teg yenn nomb tànkam yi mm-hmm. moom mooy gën a tane mu mu xam na parti nu muy fonctionner mm-hmm. euh, ci ñu ko sos la bokk xëñ na expérience am wala ay conseil am ñoo ko ne li lu gën xam na fu fu gars yi jëm ak moom mm-hmm. mu ne bàyyil ma jiitu leen ci au moins politiquement mu mu marqué benn avantage mooy xaarul ba ba ñu koy dàq wala ñu koy ñu koy néewal doole moom mu jiitu leen ci Mm. mais beneen bi mooy aussi ci démission boobu ñu taxaw ci parce que nee na instance yi la démissionné. Mm. mais poste ndomba biir APR dem démission te ku ne xam na ni conséquence bi nga xamante ni ku démissionné sa parti la la fekk bu fekkente ni député nga. message message bu fort la euh, fu mu toll nii euh, dafa teg benn étape di xaar euh, waa. secrétariat exécutif APR ak seen conseil de discipline ban ban mesure la ñuy la la la a jël et euh, tegul acte boobu par par par hasard parce que dafa dafa dellu ci combat politique parce que am na leneen lu mu wax mm-hmm. nee na pare na dem kaso mm-hmm. pare na sax euh, ñàkk ci bakkanam mm-hmm. donc dama yaakaar ne dañu dugg ci benn bras de fer ak benn cycle de dérapage boo xam ne euh, dafa nar a doy waar lii yëpp soo xoolee man image bi ma ci am quel que soit le comportement de Moustapha Cissé Lo ak ak tempérament am y a d'abord benn fait bu constant mooy soo génnee saaga yeeg nga génne lépp ci différents euh, différentes sorties yi mm-hmm. am na benn affaire bu constant mm-hmm. mooy ñàkk mën waxtaan ak euh, Macky Sall euh, bi am seen diggante ñàkk dialogue bu am entre moom ci par nekk membre fondateur boo xam ne mënatul am accès ci Macky Sall institutionnellement xëñ na Macky Sall a raison parce que président la Cissé Lo bu nekkoon copain am bi mu doon àndal di wut nguur gi mënatul am ci moom peut-être jot comme ni mu ko bëggee loolu parce que président de la république la mais politiquement euh, peut-être que le président a tort parce que ñu mel ni Moustapha Cissé Lo ne serait-ce nga xam seen capacité de nuisance soo leen bàyyee dégguñu la euh, déggool euh, gisuñu la mënatuñ la gis ba ñu egg ci kii man tax mooy jox image benn nit bu ñëw ci kër bëgg laa gis mu taxaw ci buntu kër gi hmm. fëgg kenn ubbiwu ko mu dem ci sonnerie bi sonné sone sonné kenn ubbiwu ko waa ji daal di for kaba daal di ko sànni ci ci vitre bi pour pour nga pour pour nga génn. pour nga gis defe naa nag kaba bu Moustapha Cissé Lo sànni bi en tout cas de delà des des saaga yeeg lépp lu constant mooy Macky Sall lay waxal. Mhm. Macky Sall la doon artu. loolu yaakaar naa ne euh, y' yaa y' a quelque chose de psychologique de benn rupture bu am entre ñaari hommes yi. Mhm. ku nekk xëñ na ci am nga sa part de responsabilité xëñ na Macky Sall jàpp na de moom lépp lu mu waroon wàcceeg Moustapha Cissé Lo jox na ko ko. yàgg na nangu peut-être lu mu considéré comme ay caprice am yóbbu na ko foo xam ne ñenn nañ sax ñu ngi doon wax ne amul euh, dayo bi mooy parlement euh, CEDEAO mm-hmm. jëm na ko fa yóbbu mais Moustapha Cissé Lo aussi jàpp na ne moom actionnaire majoritaire la ci wala ñu ci bokk te loolu kenn mënu ko ko bañal mm-hmm. quel que soit lu ñu mën a wax ci Moustapha selo Lo euh, APR sans Moustapha Cissé Lo sans Alioune Badara Cissé mm-hmm. sans Mbaye Ndiaye ak quatre ou cinq autres personnes pas plus ñooñu la le commando. ñu yóbbu mm. ñu apporte ñu yóbbu Macky Sall au pouvoir. Mm-hmm. mënuñu changer histoire ñu falsifier ko mu am lu mu doxee. Mm-hmm. ba nit ñi fàtte apport bu Moustapha Cissé Lo amoon et jamono yu mu koy am. neewoon na ñu ñeme woon taxaw jàmmarloog la machine de guerre du PDS. Mm-hmm. lu nekk euh, Moustapha Cissé Lo ak ñu mel ni moom. subir nañ ko pour porter Macky Sall au pouvoir. Mm-hmm. donc est-ce que su assemblée nationale. perte loo xalaat non non mais non seulement dàq nañ leen assemblée nationale. mais il a surtout résisté <laughs> Ablaye Wade amul lu mu essayé wul pour pour pour pour indiwaat ko ci ci wetam. Mm-hmm. et sans cet apport là et ce courage et Moustapha Cissé Lo luñ luñ ko mënte waxal c'est un homme extrêmement courageux. Mm-hmm. nit ku ñeme la mën nañ bañ a d'accord ci nu muy nu muy doxalee comportement am am na ci lu ci bëri loo xam ne. Euh, Euh, vraiment rafetul du lu loo xam ne mun nañ ko euh, éduquer ay nit mm-hmm. mais su fekkee dañu génn ci côté moral bi ñuy mm-hmm. xool ci côté acte politique bi pur et dur mm-hmm. Moussa Fallou c'est un très bon soldat qui a largement contribué à porter Macky Sall au pouvoir est-ce que yaakaar nga ne maintenant conseil de discipline mën na dem ba décider exclure ko au centre de la paix c'est le contraire qui m'étonnerait c'est-à-dire ñu bañ a dàq Moustapha Cissé ak fii ñu egg ak moom ni moom moo moo mën a jaaxal et ce sera une tragédie parce que euh, un un un parti dafa am storytelling mm-hmm. dafa am ko sant dafa euh, ñu ko sanc dafa am ay ay ay mm-hmm. et parti heure bu amee départ euh, yenn figure emblématique parce que ñun mu neex mu naqari figure emblématique la. mën mm. nañu wax figure controversée. Mm. mun nañ wax ne d' accord ak moom ci ay méthodom et cetera mais euh, Moustapha Cissé Lo kenn mënu ko génnee ci histoire ci histoire APR. peut-être problème mu management la est-ce que président bi il a eu tous les outils psychologiques. Mm. pour pour gérer ñu mel nii. parce que parti bu bu bu bu conquérir pouvoir souvent yu mel nii da koy dal du du APR rek ah. Euh, bëri na ay membres fondateurs yoo xam ne souvent ñoom du ñu fekkee njëriñ bi. wala su mbir mi sottee lu ñuy wax lu sotti bëri borom mu am ñeneen ñu ñu waliyaan si gën ëppale leen ci après ñu mer mais tout dépend de après président bi euh, apport euh, management psychologique bu muy def est-ce que tey su doon euh, Macky Sall suy dem voyage mm-hmm. yenn voyage stratégique yi da ciy invité Moustapha Cissé Lo ñu gis leen ñoom ñaar ñu toog Moustapha Cissé Lo continuer mm-hmm. di mën wane nit ñi man ba léegi am na proximité ak ak président. Mhm. est-ce que su ko defee woon ak Youssou Touré wala keneen parce que Youssou Touré moo moo moo doog dugg si. <laughs> est-ce que euh, ñooñu noonu nga xam ne ñoo fi nekkoon di ñafe. Mhm. bi fi affaire bi fi dara nekku leen. Mhm. amuñu tey problème pour am accès ci ci président bi ak euh, du du question de privilège kese ah. président mun na jàpp ne jox naa leen ndomba tànk jox naa leen lii. mais est-ce que des militants historiques ñu fi nekkoon amuñu leneen lu ñu lu ñu soxla lu ëpp cër ay position de pouvoir. mooy yëg bi. ak nga sagal leen. ak euh, di diisoog ñoom. parce que aussi parti bi ñoom seen seen parti bi. à part le secrétariat exécutif qui se réunit de manière très irrégulière. parti bi structuré wuñ ko. Mhm. te soo leen waxee affaire structure. ñoom dañ naan la woy structuré wuñ parti bi mais terewuñu ñu ngi def ay résultats électoraux. Mhm. oui ñu ngi def ay résultats électoraux parce que ils sont un parti au pouvoir avec les moyens et cetera mais en réalité ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis parce que nii nii nii la la la la crise bu Moustapha Cissé solo créer ci parti bi ce n'est qu'un révélateur am na yeneen ak yeneen yu gën a graaw yu nekk ci biir parti bi et et puis il doit faire très attention Moustapha Cissé Lo est-ce qu'il n'est pas plus dangereux dehors que dedans ku ne la dafa pare dem kaso ku ne la dafa pare ñàkk bakkanam wala comme un animal blessé boo xam ne su demee ba sës ci benn mur est-ce que Moustapha Cissé Lo yorewul ay yeneen bomb yoo xam ne. Mm-hmm. bés bu ko waxee ci beneen fayoto wala moom wax na ko assemblée mais nit ñi dañ ko dul déglu. et pourtant moom il est cohérent mais est-ce fois il a dit à l'assemblée. am na loo xam ne su ma ko waxee àdduna tukki. <laughs> ak on on peut le croire parce que il est au cœur du système. déjà lu mu xaw a junj ci yenn problème yi waroon waroon na tax sax nit ñi ubbi commission d'enquête. Mm-hmm. le problème tey du du rek ñu traduire ko conseil de discipline mm-hmm. loolu. APR la concerné c'est une association privée foofu laa bëggoon a laajee sax quoi mm-hmm. mooy lan moo ci war a nekk am taxawaay lu toll ni procureur de la république parce que ñi ngi joxe gis naa Mbagnick Ndiaye ci benn journal ne Assane Diouf la mu wax a gën a kii te ca kaso ba am na ñeneen ñu ngi il y a énormément d'interrogations comme lu gën a graw li mu wax mm-hmm. mais surtout euh, li mu junj ci affaire détournement ay accusations la ça mm-hmm. n'engage que lui ñu moom moo wax mm-hmm. mais au moins mm-hmm. au moins ne serait-ce que pour rassurer l'opinion publique le parti au pouvoir moo njëkk am intérêt mm-hmm. tey euh, waxuma opposition bi mais waa APR ñoo waroon initier benn commission d'enquête parlementaire ne est-ce que yu muy wax dëgg la es ce que y a des responsables de de yoo xam ne dañu bénéficier ay quotas lu sur est-ce que amul conflit d'intérêt sur quelle lañ leen ko joxe yan homme d'affaires yoo xam ne dañ leen ko jox est-ce que amuñu làkk ci ginnaaw et cetera et cetera. Mm-hmm. même président bi pour pour rafetal image am moom moo ko wax ci communiqué bi. Mm-hmm. nee na waa ji dafa écorné image yu institution bi. Mm-hmm. écorné image yu Sénégal mais ñoom kon kay ñoom tey. ñoom ñoo war a am njëkk ab intérêt que daal def ay commission d' pour ñu xool lu Moustapha Cissé Lo di wax ndax yoon na maanaam quoi merci beaucoup mm. euh, Barka Ba euh, chronique bi am na sol Chérif dafa mel ni itam euh, gan gi yegsi na muy Youssou Touré moom nag bokk ci APR xam ngeen ne itam coow li lëmbe na Sénégal ci kanam tuuti moom Youssou Touré nañ ko dala laataa loolu dañuy ànd ak Aminata Mbaare soow ci point corona mu defal ñu taxaw seetlu bi mbas mi fi mu toll ci àddina wax ngal la bu tiital àdduna jaaxal tamit bi mbas mi tàmbale ak léegi weesu na juróomi téeméeri junni bu tegal fanweer ak ñaar bu tegal sax ci ay doomu aadama ñu ñàkk seen bakkan ci mbas mi ci àdduna wërngal këpp lim bu takk boobu nag Sénégal am na ci téeméer ak fanweer ak ñett doomu aadama yi faatu bi mbas mi tàmbalee ci sunu réew mars ak léegi mu mel ni nag dëkk bi gën a sonn ci mbas mi dëkk bi nga xam ni lim ñi faatu foofee la gën a bëri mooy ca foofule ci dëkkub Donald Trump weesu nañu téeméeri junni ak ñaar fukk ak juróom ñeenti aadama yu teg yoo xam ni ñàkk nañ ci seen bakkan bu weesoo foofule ci états Brésil tamit lim ñi fa faatu takku na lool ndax di tey jilee ci chiffre yi ñu mujjee am mat na 64 265 ci ay nit yu ñàkk seen bakkan mu mel ni ci biir Afrique nag ñii di waa Afrique du Sud ñoo amagum lim bu gën a takku ci ñu faatu ak tamit ci cas confirmé coronavirus ndaxte ci dëkk boobule tollu nañ ci cent quatre vingt seize mille sept cent cinquante cas confirmés ba fa mbas mi tàmbalee ak léegi lu tollu ci trois mille cent quatre vingt dix neuf ñàkk seen bakkan bu weesoo Afrique du Sud ci biir Afrique tamit dëkk bii di Égypte loru nañu lool ci coronavirus ndaxte foofule ci seen lim ñi ñu testé positif mu ngi toll ci soixante quinze mille deux cent cinquante te lu toll ci trois mille trois cent ci ay nit di fay ñàkk seen bakkan mu mel ni nag mbas mi dafa soppi direction ndaxte bi muy door commencé dëkku bu Europe yi la gënoon sonal yi ci mel ni Italie Espagne ak France waaye tey jilee dëkkub Amérique latine ak Amérique du Nord ñoo gën a sonn te fële ci États-Unis ñi faatu ñu ngi yokk bës bu ne fële tamit ci Brésil ak yeneen dëkk Amérique du Nord yi ci mel ni Mexique tamit loru nañ bu baax a baax ci mbar Aminata Mbaye Sow ñu sant ko bu baax gërëm ko euh, dalal ko nag euh, wala boog jaajëfal ko bu baax a baax ci euh, point corona bi mu ñu defal muy point du jour suñu gan yegsi na continuité lañ fas yéene def sax sànq euh, chronique bi ak Barka mu ngi wax euh, actualité bi euh, Youssou Touré monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay. Mm-hmm, mu ngoog Chérif ñu ngi koy wax sànq coow li fi mu ne nii lëmbe na wax ma sax Sénégal mi àddina wërngal képp xam nga réseaux sociaux yi nag ak internet ak fi mu toll lu ci mel ni WhatsApp ak audio loo ci lancé dafay jàll te message bi itam xam nga fan la jubloo woon mais àgg na ci ñi war àgg ba fi ne nii coow bi di Sénégal Chérif. Mhm, jërëjëf Faty ñu daal dalal sunu gan euh, monsieur le ministre Youssou Touré. Mhm. nekkoon na fi secrétaire d' état bi ñu dénk wàllu alphabétisation ci nguur ak président Macky jiite réseau des enseignants. Mhm. bu APR di kuréel gi nga xamante ni moom moo yilif kon euh, jàngalekat yu APR euh, monsieur le ministre ñu ngi leen di. maa ngi leen di fay ana waa Pikine. ci jàmm <laughs> laaj bi lañ bëgg a lu xew seen parti bi. waa xam nga <clears throat> dafa am loo xam ne gis nga rigueur dafa baax si lu nekk. Euh, donc je crois que moom le président de la République Macky Sall ku ko xam xam ne nit ku yiw la euh, il a toujours fait preuve de retenue par rapport à certaines questions donc euh, il est inadmissible aujourd'hui quand même des responsables de haut niveau di gérer tout un pays ngay wax di saaga teguñ ko fenn rafetul Moustapha Cissé Lo sama xarit la mais quand il faut savoir raison garde nekkuñu fii on n'est pas des animaux pour nous donner des coups comme ça de verser dans des insanités yoo xam ne yi xale yu ndaw sax duñ ko wax duñ ko def mm-hmm. et cela mérite une sanction à la hauteur de cette forfaiture là. quel genre de sanction ban xeetu sanction. ba ba ban sanction mais quelqu'un boo xam ne yow bu fekkee ni foo toogee xas saaga étant un responsable de haut niveau. Mm-hmm. muy saaga ñu ko sii bàyyi man de mosuma am ak ñu moom benn contentieux. mosuñu am benn contentieux mais dafa am loo xam ne li aussi wax dëgg yàlla euh, sénégalais yi sénégalais yi ak yi du ñuy xaar ñu jël en charge seeni préoccupation mm-hmm. mais yow ban daan ngay sàkku nee nga sanction na ban de quelle nature sanction bi. mais de quelle boo jógee audio yooyu yoo xam ne il a assumé mo mosuma am ak moom problème na ko wax dëgg yàlla mm-hmm. mais ay audio euh, di saaga yoo saaga yoo xam ne yi rus nañ sax di ko yoo di ko waxaat quand même. jàpp amatul wàll ci parti bi. kan. Euh, jàpp ngeen ni da dañ ko war a euh, boo demee ba am yenn responsabilité mën nañ la xaas mën nga def lu nekk boo am mais yow yaay encaissé jafe-jafe yooyu yow yaa koy encaissé parce que on est dans un état de droit dafa am loo xam ne ni dañ ko dañu war a may cër sénégalais yi c'est important xas ak saaga dafa yomb c'est trop facile. mais c'est pas la première fois te tout le temps est-ce que tamit bàyyi mu jàll gi. non bii bii quand c'est le sommet. c'est le sommet de l'ignominie. mais est-ce que waroon ngeen xaar sommet. non mais c'est au président de la République de prendre ses responsabilités par rapport à certaines questions. nous on ne pas prendre une initiative boo xam ne bi peut-être que. mais vous êtes dans l parti. Et euh, dans tous les cas, il y a eu des problèmes, il y eu des difficultés, mais on a toujours fait preuve de retenue. C'est important. On doit respecter les Sénégalais. da ngay xëy suba teel man maa ngi si maa ngi si banlieue bi ay xale ay comment di la di ñaan lu ñu ndékkee lu ñu lekk. Mhm. ñun ñu toog fii maintenant. on joue au euh, euh, euh, xaw ma à l'arme mais c'est extrêmement mais mais Youssou Ndour est-ce que daan yi bu naree am ci ci Moustapha Cissé Lo rek la war a am parce que ñi mu ko séqal aussi ñu ay tontonte am na dégg nañu fii ay kàddu yu ñagas yoo xamante ni yeneen wàll yi tàmbalewul tey ah man lu may demandé président de la république comprendre cette situation là buñ ko bàyyee mu jàll ce serait très grave ce serait très un précédent dangereux. un précédent dangereux voilà yow dégg nga tubaab man dégg nga tubaab c'est un précédent dangereux c'est un précédent extrêmement dangereux mm-hmm. comprendre euh, on ne même pas qualifier ce comportement là audio man bu ma ko liree boobu laa si il faut qu'on prenne nos parce que nag am na fu ñuy am na fu ñuy egg nous ferons face par rapport à ces questions le président on, on, on sait de retenue c'est a homme de de quoi qu'on dise. yaa ngi menacé de. Ah, nous ferons face. nous fa nous ferons face. quand quand mais quand on insulte. mais quand même nous sommes une institution. on est une institution ñun duñ saaga xamuñu luy saaga kuy saaga c'est peut-être que tu es petit tu ne rien du tout dans cette société saaga. mais est-ce que mën nga critiquer mën nga ko ne non lii nga def baaxut lii nga def rafetul mais di saaga nit ñi mais c'est inadmissible on est pays. yéen da ngeen koy accepté fii ñu toog fii ba man bu ma toogoon fii da ngeen bàyyi may saag. non non non non non quoi c'est ça le problème personne ne peut l'accepter c'est inadmissible c'est pas grave c'est gravissime mosuma gis lu mel nii ay saaga ndey venant de responsable de haut niveau. Ah, mais mais man man laaj bi ma la bëggoon laaj mooy quand même est-ce que du comme ni nga ko waxee du problème mu discipline quand même. Mm-hmm. ci biir parti bi parce que loolu yàgg na fi yow mi yàgg nga fi amee jafe-jafe ci wàllu ba. menace fi teg teppi ndox monsieur le ministre. non ci parti bi wax sa xalaat wala des fois nga nga defee ko noo xamante ni xëy na. teguwul ci yoon ba nga tepp fi sa non pas saaga sax mais mooy li ma wax quoi maanaam problème mu discipline maanaam ci biir parti bi est-ce du loo xamante dafa yàgg. mais la discipline est là. c'est normal maintenant. maanaam ah. yow mii ñaata yoon nga de tekki nga sa ndomba tànk dëkk kii déconné fii après. waaw mais déconné wu ma non non non non déconné wu ma on a dit que j'ai détourné trois cent millions j'ai démissionné. kenn mënut a génne wala wax fu ma xaste wala fu ma sànni. mais mais discipline ci wàllu parti bi aussi nag euh, monsieur le ministre faaw ñu def ci taxaw seetlu aussi parce que gis nañ kàddu yu mel yu mel nii ci biir parti bu ñu nee discipline am na fi te xel dafay. xam tey quand même waaw se sont bien passées comprendre c'est normal quand il y a un grand groupe. qu'il y ait des problèmes difficultés. et cetera yu ñagase dañ daan bàyyi muy jàll aussi. waaw bu ñagasee on en politique. Hmm. boo demee France boo demee Allemagne. c'est le même comportement c'est le même discours seen xol sa xol day tàng nga wax yenn yi mais nag am na étape boo warta boo warta jàll mhm, mais yaa xam mbay bi ñu wax yéen ñaar amoon ngeen fii te également ay jafe-jafe ah, ba mu tontu mooy justement bi mooy wax ni da ngaa fipp woon mu génn fi indi document ne pourtant day yow li ngay euh, wax ni euh, parti bi yàgg na laa taxaw parti bi ndax yàgg nañ maa taxaw mais yàgg nañ ma taxaw kay yooyu la problème je suis là pour lu tax nga yéen ñi ci yéen ñi nga xamante ne jàppale ngeen président Macky Sall c'est vrai que sonn ngeen jàpp ni également moom it noonu la war a def parce que dafa am ñoo xam ne ñëw fekk si ko moom it mu jox leen ay ndomba tànk mais dafa mel ni ak siis aussi am na ci parce que non non ndomba yooyu euh, président mooy apprécié on a besoin de tout le ku ñëw ak sa xam-xam bu toll ni wee dañ ko war a jëfandikoo pour mu jëriñ askan bi de façon globale képp koy xaste képp koy saaga c'est parce que moton loo doon. Mhm. léegi moom lan la leen deseel fi mu toll. moom yéen yéen yéen militant premier li daanaka jox na leen la mu waroon rek yéen def na ko. ci ay ci ay cër ak i tànk la. nekkuñu fi parce que moo waral coow li moo waral coow li. nekkuñu fi ay cër ak i ndomba tànk ñun dañoo suur démb te tey ñëw nous ne sommes pas des affamés biologiques encore moins. waaw ah, kii comprendre mais mais quand même. Ah, waaw non a été éduqués kuy xas sa kuy saaga c'est parce que tu es faible tu es un homme faible tu ne mérites tu ne mérites par rapport à la société mm-hmm. boo demee tey jii man maa ngi Pikine comprendre mm-hmm. da ngay gis ñuy xale yi ñu kii lu ñu ndékk lu ñu ndékkee sax duñ ko am maa ngi suis dans la maa ngi fu école 3 suñ grand place foofu laay toog mais c'est des scènes yoo xam ne pathétique mais loolu du échec seen régime yi non c'est pas un échec non ah, si yow constaté nga ne nit toujours des problèmes il y aura toujours des difficultés. Mhm. mais il faut faire preuve de retenue. mais am na problème ñu bari dañuy gis ni su nit di saaga bokk ci kii dañuy wax ni que c'est à l'image des des dirigeants. Mm. non non non des fois dérapage verbal mën na am ñun ñëpp a yem dérapage verbal mën nga wax sa xol jóg. Mhm. nga wax loo xam ne ni après da koy rëccu parce que nous sommes que des montagnes. mais waa ji yemul verbal kese de parce que ay accusations mm-hmm. tamit. Euh, euh, bonne gouvernance mi ngi ci bonne gouvernance mënuñu accuser président ce n'est pas possible man duma ko faral parce que yàgg nañ maa dàq on m'a relevé de mes fonctions fii mm. comprendre nga dàq ma totalement mais dafa tax man may saaga wala ma wala may kii parce que nit ki boo xamee sa bopp da nga xam ne da nga suur démb te nous nous ne sommes pas des affamés mentaux des affamés biologiques comprendre nga dañoo ba pare doogu ñëw donc par rapport à ça suñ préoccupation mooy les sénégalais mhm. waratuñ xool suñu bopp mhm. dañoo war a xool ni réew mi da ngay xëy des enfants des dames yoo xam ne amuñu luñ jox seen soni doom mhm. amuñu luñ lekk comprendre loolu mooy la priorité du président Macky Sall il y aura nag des problèmes des fois xuloo dana wérante dana am peut-être sax xeex est-ce que doo indiwaat problème mu organisation parce que ñàkk structuration bi nga xamante ni quand même yàgg depuis 2008 ba. après juddoo ba léegi. ñu ngi koy wax mais parce que la yow très réseau bi nga jiite coow amoon na fi ba gis nga. ah fi mu doon mais que sans mais mais le problème par rapport mais dans la organisation l'organisation. mais dans on n'est pas des saints. nous ne pas des saints bis bu nekk lu Youssou Ndour doon wooye ku dul juum amul mais ñëppay juum. mais boo jiitee aussi da war a doon royukaay monsieur le ministre. non ce qui s'est passé tout récemment quand même ça dépasse l'entendement c'est inacceptable c'est inacceptable kenn mënu kenn munu ko dégg. ay saaga ay saaga ay saaga de après nga ne mais mais ba léegi sax mais bu ñu yem ci saaga yi parce que wax na leneen lu dul saaga yi parce que déjà am na yu muy wax ba li ko wax ci kanamu première daam bu tudd ci président yooyu mais yooyu yëpp dañ wax ni mais ki li muy wax ni fekkee dëgg la mais bu dëgg on se pose des questions mais bu dëgg c'est irresponsable laa la ne c'est irresponsable comprendre ku koy dem c'est parce que franchement ci euh, euh, mu doon nekk interlocuteur nit ñi ce n'est pas possible man kuy saaga aw maag yow affaire bien que nag da am na ay période yoo xam ne c'était des périodes dures c'était des périodes difficiles je le reconnais ñun aussi on a fait face boo defee face xuloo la xasante la mais on doit dépasser ça maintenant dañ ko war a dépasser ay nit lañu. duñ ay bàyyi ma il faut respecter les Sénégalais. mais xasante ci entre responsable yoo xam ne ñëpp dañoo jël seen i gët teg ko ci yéen est ce que itam jaadu. dañoo ma ne xasante. xasante bi est ce itam dafa jaadu jaadu. kan moo xasante. da nga ni sànq yow yaa ne xuloo xasante mënut a ñàkk ci biir parti. waaw des problèmes mënut a ñàkk. Mhm. quand on est dans un groupe. c' est normal que par ci par là muy am des frictions muy am des déceptions mais dafa am fu mu war a yem dafa am fu mu war a yem. mais loolu dafa am ko ko foora yamale mooy njiit li nga xamante ni déjà. mooy seen njiitu parti. waaw mooy njiitu parti le président Macky Sall. dañ ko waaw mais moom jar na jar na bàyyi quarantaine ñëw réglé ko lii lii problème yi. kan kan président waaw. Euh, réglé ko Sénat. ah déet non wax ju ñaaw ji nga xamante ni quand même ñaa ngi ci mbas mi. mais le président a toujours condamné cela. président dañ ko dañ ko ma man mii di dàq nañ ma di dàq nañ ma. dàq nañ ma après lañ ma xam naa nañ dañoo nee nañ. boobu da ngaa génn saraxun da ngaa génn yow tamit. même si saago mais am na loo wax. ay non du ma saaga non yoo def. moo tax non non je ne fais pas de déballage. Ah, si je regrette non je. génne moo tax moo tax yaa xam tontu woon la moo taxoon yaa xam tontu. c'est pas mon interlocuteur. Ah, ah. yaa xam ne sera jamais un interlocuteur pour moi. bëgguma dugg dans les détails parce que euh, j'ai reçu une éducation de mes parents. euh, qui ne me permet pas d'aller au-delà de certaines situations. Mm nga mënoon naa def verser dans le déballage. mais on n'est pas là pour ça. on est là pour prendre en charge les préoccupations des Sénégalais. temps bi question la xam naa temps beeg ñu xat parce que maa wax sànq yaa jiite réseau des enseignants bu APR semaine passée def nga fi benn conférence de presse xam naa image yi buñ ko mënee xool euh, dina ci baax tuuti. Mhm. mais sortie boobu am kenn joxul la ndigal ndax wax nga fa ay gouvernement d'union nationale et cetera ku la wax loolu. <laughs> gouvernement d'union nationale. mooy tontu tontu communiqué bi nga xamante ni quand même beneen camp bi génnoon wax nañ ko pour woo ñëpp ñu liggéey et cetera opposition bi lu lu tax da sorti boobu déjà. man maa def sorti boobu. waaw conférence de presse bi nga def jeudi passé yow yaa ko def. non kooku c'était avec des camarades yu nekk ci àll ba yuy ñëw c'était tout juste pour échanger. comprendre nga en profiter pour discuter pour voir stratégie yu ñuy mettre en c'est ça mais il n'y a jamais année bi wala. c'était sur le plan c'est lan. non ma c'était politique loolu wala ci mbirum éducation bi. non politique la ak éducation parce que nous sommes des enseignants. Hmm. nous sommes des enseignants. mais c'est normal que de temps en temps peut-être qu'il y ait de petites difficultés mais c'est tout à fait normal. même dans nos familles respectives. il y aura toujours de petits problèmes. mais damane ne kuy saaga. ta place nekkul ci société bi boo saaga boo taxawee di saaga di wax lu ñaaw comprendre nga mais franchement euh, waruñ la teg sax comme nit. ah mais ban ban taxawaay ngay xaar ci euh, conseil de discipline parti bi. non là c'est au président de la République de prendre ses responsabilités par rapport à ces questions parce que ça commence ça commence à durer et à perdurer mm-hmm. les Sénégalais nous attendent sur d'autres chantiers que ñu jël leen en charge. kuy xaste kuy saaga c'est parce que franchement doo nit bàyyi ma sax moo la gën comprendre donc man du ma ànd si loolu bien que jee beaucoup d'insuffisance du ma ah, dara yow tamit des sa dënn bi jóg nga kii de mais dënn bi jóg c'est tout à fait c'est des fois c'est normal boo amee lu la métti en tout cas mënuñu génn euh, génne dara lu ne Youssou Reek xaste na wala saaga na duñ ko wax de xas na saaga na nañ ma ko génne du ko def monsieur le ministre en tout cas li nga wax euh, foofu ko euh, daaneele peut-être foofu la ñuy yëkkatee rek sénégalais ñu ngi leen di xaar feneen fudul ci ay saaga ndax dëkk bi metti na jafe-jafe yi bëri na euh, sànq yaa ngi naan peut-être ku matale amut waaye nag monsieur le ministre askan wi sonn nañu ko dëgg fa yàlla sonn nañu jamonoy mbas la ñu nekk dëkk bi dafa metti quand même ah, lu am États-Unis Donald Trump mais mais mais xam nga ah, mais parce que xam nga ñun Sénégal moo ñu concerné dañuy wax àddina yëpp mais bu ñu nee mbas mi metti na ci jamono yëpp jamonoy confinement ku ne xam na Sénégal demee eh, ba États-Unis ba États-Unis Donald Trump mënu koo régler. waaw mais bu ko Donald aussi am nañ droit waxtaan ci pour trouver mais loolu justement loolu tax ñu leen war a xaar pour ngeen jàppale askan wi. mais ñu leen di ah, jàppale. Ah. le président est très social. bañ na ko ba boo demoon tey jii ak lu mu mënti kii du la ko jox parce que day ne mais Youssou am nga salaire. seetal nit ñi les yoo xam ne yoruñ dara du ñuy xëy pour ñu jox seen doom ñu lekk problème waxuma ko pour tagg ko parce xam nga rek comme li Fatou di wax tamit lu am la soo xoolee ndox mi nga xamee ni dañ ñu mayoon facture yi sax dafa mel ni facture yi si tegu dañoo <laughs> dañ ko multiplier par deux. <laughs> ñëpp la seen sax sax mais ndox dafa manqué woon monsieur le ministre fan yëpp. mais nekkuñu paradis. mais loolu faral faral <laughs> ah, j'ai été à Montréal pour des formation j'ai été à Turin comprendre un peu partout. on est confronté à cette blessure. ce monde-là ne sera jamais. mais mais le minimum quand même ay kay ñooñu amuñu problème mu ndox ay courant yi ni wax loolu. quand même ay Montréal moo fa. ay Montréal waaw. mais ils sont confrontés à d'autres problèmes. waaw mais mais base am na xam ne minimum c'est le minimum quoi le minimum mënul ñàkk ci dundu askan wi. je pense que bu fekkee dañ dañ leen a fal monsieur le ministre également. waaw soxla askan wi. mais la euh, perfection n'est pas de ce monde. on ne peut pas tout régler on ne peut bu doon loolu bu doon loolu la kay Donald Trump wax dëgg yàlla kon mu ngi euh, tëb ak. Euh, fu ngeen toll ci euh, troisième mandat bi fu ngeen ci toll. troisième mandat ou deuxième mandat. franchement. <laughs> ay deuxième mandat troisième mandat c'est non non non non dawuma c'est aux Sénégalaises et aux ah de donner. Non, non, ils ont leur mot à dire par rapport à ces questions. Mais si, mais si, mais il faut être. Non, non, non, il faut être très démocrate. Nañ démocrate nag nañ démocrate rek. comprendre c'est la loi de la majorité qui prévaut. c'est la loi de la majorité. mais waa ji ci boppam na ko moom ko mais na ko. waaw mais mais na ko. waaw mais bu ko non du pour bu mujj. le on est à la recherche d'une voie au sorti de laquelle les gens peuvent se retrouver monsieur le ministre ñu ngi lay jaajëfal waxtaan bi xam naa ne mënu fee jeex si plateau bi parce que on a tellement de choses à dire euh, mu ngi noonu euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax bu nekkoon nag euh, monsieur le ministre Youssou Touré ñu lay jaajëfal ci disponibilité bi ah mu ñu dem ci allo présidence Père Boukhar la ak Ndiaye dellu si léegi avant ñu commenter image du jour Baraka Dakarisation de l'Université de Rivière-du-Loup, présidence de la République, palais de la République, muy résidence de la République bi nga xam ne moo démarré situé dans le quartier Dakar Plateau capitale du Sénégal construit en 1902 Ousmane palais bi yàgg na def mu nekk la résidence officielle du de l'Afrique occidentale AOF depuis mu ñam fi nu xaaree ni ba xam kii woote bëgg a jot président de la République koo kan la war a doon ak fan lay biir réew wala bitim Abdou Mbaye ancien premier ministre du Sénégal Abdoul Mbaye Abdoul Mbaye monsieur Sow tu me reconnais plus. ah non je ne reconnais plus la voix. ah bon. oui. ah monsieur Sow boo defee noonu dina am lu ma naqari lool parce que yow. bi may nekk ci pale bi nekk euh, premier ministre jàmm lañ séqoon. non Mbaye monsieur Mbaye nga paas nga ñaan ma may la. monsieur Mbaye yenn saay maa la daan jox loo ndekkee tey su ma mënee woote nga naan yow la kan xametuma baat bi vraiment dina am lu ma métti trop ci yow ah. monsieur Mbaye. oui. da woo biir palais. waaw am looy wax wala amoo looy si am naa lu may wax jox ma président Macky Sall. tu as une minute une minute trente. waaw ah, kon woote ci biir palais bi léegi dafa am ay heure ak ay minutes yu ñuy joxe. mais dé décidément je suis vraiment désolé mais c'est que du désordre dans le palais. ah merci jërëjëf Mbaye wuy ma. voilà oui. lan waral sa woote. waaw dama soxla woon euh, Macky Sall jox ma ko. le président de la République gardien de la Constitution dama jàpp. voilà léegi euh, mën naa la euh, tu peux me transmettre mon message à lui. moo tax ñu may par weer. wala voilà ne ko gis naa ko voilà muy def barki démb discours di xonkol ay bët di yërëmtulu ne ko rakkam bi nga xamante ni euh, mooy euh, son petit frère là comment dire encore euh, le le le maire de Guédiawaye là mu ne dafa am Covid 19 bëgguñu yërëm ko loolu mënta tax ñu yërëm ko Covid 20 Covid 30 Covid 19 lépp luñ ci yemale ak lu mënti doon. Euh, xaalisu pétrole bi dañ laal ko ci takkal ko ci cela ne veut pas dire que ñu yërëm ko ah. Moussa Mbaye Moussa Mbaye. oui Moussa Mbaye yow ay xaalisu pétrole ak gazo xeeroo dojoo oro yow loolu waroo koy tudd sax yow. pourquoi pas non déglu ma rek Moussa Mbaye. je suis citoyen comme vous Moussa Mbaye. écoutez damay xoolal tu étais directeur général de banque de l'habitat mais mais mais loolu sama métier la ah, sama métier. parce que maa ngi jàngee Dakar Sénégal du 100 pour cent Sénégal. tudd euh, euh, Abdoul Mbaye Abdoul Mbaye ah. waaw waaw. jàngi université am sama baccalauréat génn dem extérieur dem jàngi euh, dem lycée Sorbonne kon wàññeeku dellu si nekk directeur banque de l'habitat je suis né en 1953 kon du ma xale voilà kon. oui oui oui. Jean Mbaye. waaw waaw wuy ma. oui maa ngi lay dégg sa diggante borom ceeb boobu Bokar Samba ji. loolu sa nekku ci toppatool sa affaire dama woote amoo pour poser ma question tu tu t'as pas à me poser des questions. yaa paa boobu kat dafa xaw a eh, kii. non non écoutez écoutez da ngay xam. borom borom ceeb ba. monsieur Sow yàgg naa la may dépense monsieur Sow yàgg naa la may passe. <laughs> monsieur sew yàgg naa la may ndekki. kon bu ma mën woote tey nga di ma band ba rek di ma mbi fa foree voilà loolu je ne serai pas d'accord li may sew sew sew leer na ma ni maa mën mën naa la yenu ba ca kaw dóor ci suuf jaan sew na waaye da nga rang ci biir ah. monsieur Mbaye. oui daa am looy yóbbante président de la république wala amoo waaw li ma koy yóbbante ne ko jusqu'à présent na armée wut xam ni duñu ko bàyyi benn yoon muy yërëm di xonkol ay bët di triste pour ñu baal rakkam bi euh, euh, euh, kii Sall comment dirais-je nu mu tuddati rakkam bi nu mu tuddati encore. xaw ma ko comment il s'appelle Aliou Sall bëgguñu yërëm ko loolu mënut a nekk bu yeboo na ñëpp coronavirus ni cela ne veut pas dire que duñu ko poursuivre. waaw monsieur Mbaye monsieur Mbaye monsieur Mbaye. oui oui monsieur Mbaye fu ñu toppee Alioune Sall 400000 toppee la fa 500000 votre correspondant ne peut être pour le moment veuillez appeler ultérieurement. ñàkk Père Boukhar ak Ndiaye ñoo ñu doon gunge ci info du matin def nag tuuti humour daf ciy baax pour euh, histoire de bien démarrer la journée euh, mu ngoog da Cheikh Tidiane yegg nañ ci cëppaandaw gi laataa loolu ñu tàggu monsieur le ministre euh, di la jaajëfalaat encore une fois. merci merci mu ngoog kon ba fan yi incha allah ba fan yi incha allah. a a yaatu. waaw mais c'est pas grave c'est déjà c'est déjà beaucoup amul benn problème on est là <laughs> on est merci beaucoup monsieur le ministre et Amina. <laughs> Chérif Dia ñu jaajëfal la bu baax a baax. Ah. jërëjëf Fatou ñu jox mbo dëgg daje mbokk téléspectateur suba incha allah. ah, ah Cheikh Tidia. voilà ñu jox leen daje euh, suba ak euh, jàmm en mm-hmm. espérant avec beaucoup plus d'amélioration c'était une première. Ah on espère que ça va plus aux téléspectateurs. incha allah en tout cas ñu amoon euh, am yaakaar euh, ne li ñu leen indil neex na leen am yéene itam defal leen liggéey bu mucc ayib info du matin la woon premier numéro yamook altine juróom-benni fan ci weeru juillet desandi leen ak programme yu télévision Futur Média ci kanam tuuti Pape Cheikh dina ñëw ak équipe ci yeewu leen di leen ñaanal kenn dal jàmm di ko sàkku ci yéen rédaction bi dig leen daje benn waxtu ci euh, xibaar.